ñun nag dinañu xeex wallaahi dinañu xeex. ci njëlbeen damay leeral ni euh, yàgg naa ko wax ci samay waxtaan. mooy président Macky Sall def na ñaari at ak genn wàll yoo xam ne waxul Sénégal lan mooy moom euh, ci li mu nar a sukkandiku pour développer Sénégal ndax bu ñu fàtte ni daf fi dikkoon ak plan bu ñuy wax ak programme bu ñuy wax yoonu yokkute tey suñuy xayma yoonu yokkute réalisé gu ci lu mat 10 pour cent ñu mu wëlbati ko wàcc ko ndax évidemment mënu ci woon wéy ndax yoonu yokkute ci boppam du programme de gouvernement profession de fois la comme ni ko suñu parti politique yi farale di def mooy su ngeen ma falee dinaa def lii dinaa def lii mais naka laa koy defee ak yan ressources ak yan moyen doo doo gis mu egg ci niveau élaboration boobu malheureusement. boo tëree nelaw waaye fooy dox yaa ngi gëstu lan la ñuy waxateeg lan la ñuy génn man mii Ousmane Sonko mu doyee di mii semaine bu nekk ñu ngi naan tey lan lay waxati. loolu def jàmm ko dañ leen dénk réew mi du seen patrimoine moomuñu ko ñun xamuñu leen amuñu benn noonoog ñoom c'est pas personnel du président du feram du ñi bokk ci parti musuma leen gis télé laa leen di seen donc koo xamul musoo ko gis munoo munoo am euh, problème personnel ak moom waaye dañ leen dénk suñu réew 13 millions de sénégalais ñoo fi nekk te réew nag même 13 millions yu sénégalais yi fi ne moomuñu ko dañuy romb rek waaye suñuy doom ak suñuy sët war nañ fee fekk Sénégal gu baax ñoom ñu ñëw ne gestion sobre et vertueuse mooy yorin gu sell tal tal leer nañ amul lu ñuy nëpp waaw loolu kay soo ñëwee ñu ne la ah problème am na xanaa kay ñun moom lañuy dimbale ñu xëy ne assemblée nationale reversé wul impôt te ñoo waroon njëkk a versé ndax ñoom ñooy wote loi yi yi yi tax ñu ñu fay ñun ñëpp. daal di dagg impôt bi toog ci Ferenkulaay nga mer ñu xëy ne pétrole bi léeg-léeg lii am na ci nga mer ñu xëy ne loi de finance bii nga woote rectificative ay marché à gré gré yu dul yoon am na ci budget budget bu référendum bi dem na ba 10 milliards te yaa waxoon 3 milliards nangam na nga mer naan damay rajeeg damay léeg damay lii donc ñun liñ leen ni woo mooy nañu delloo si seen xel nguur day jeex président nekkoon na fi président nekkaat président nekkaat te moom day dem. enregistrement yaa ngi fi mun nañ leen ko jox. dama ne woon benn réew mu mel ni Sénégal soxlawul une juridiction comme yi pour combattre la corruption ndax on a les meilleurs corps de contrôle qui font un excellent travail. on la cour des comptes on a l'IGE la CENTIF on yokk nañ sax ay nag qui font de bons rapport qu'ils transmettent il suffisait ñu respecter la procédure judiciaire bu ñëpp xam dans un système moderne mooy le système accusatoire mm-hmm. qu'un rapport soit bien fait prouvant qu'il y a eu mal une mauvaise gestion wala un détournement de deniers publics wala leneen leneen wala corruption ñu jox ko procureur procureur ouvrir ouvrir une instruction ñu jaar fi ñu war a jaar pour avoir des résultats d'ailleurs soo seetloo dossiers yi jaar ci juridiction normale yi mm-hmm. ñoo gën a avancé que dossiers jaar yi dëgg la ban dossier moo avant CREI ma ne woon nag c'est une option def nañ ko mais su dee li ñu ci jublu mooy fexe ba seppi ñaar wala ñetti hauts fonctionnaires ak peut-être deux ou trois politiciens yoo xam ne on veut ça c'est des yu ñu bëgg a débarrasser wu ne on a réglé le problème de la corruption il se fouille le fourre le droit dans l'œil parce que mmh. ñun duñu seetaan loolu dinañ pousser débat bi jusqu'au fond mais ñun suñuy réew lan moo tax le peuple bi nga xam ne ñoo fi teg ñoom mënuñu fexe ba taxaw ak ñoom jox leen ay explication ci acte yi ñuy posé te muy engagé peuple bi loolu njaaxum la te loolu opacité la ci gestion moo tax nun ñu ne nee nañu signé nañu am na ay firnde am na ay information yoo xam ne dañ koo jëlee ci ñu wóor ñe dem nañu signé te yégaluñu ko nit ñi moo tax damay wax au conditionnel mais su dee def nañ ko def nañu lu rëy mais xam nga trai euh, lu mel noonu accord bu mel noonu day am valeur de traité moo tax signé ko ñoom doyul il faut assemblée nationale maintenant voté ko ratifié ko moo tax ñun fi mu toll nii assemblée nationale la ñu interpellé parce que su dee exécutif bi faillir na ñun législatif bi la ñu wax ndax ñoom ñooy ratifié damay faral di wax ni sénégalais yëpp war nañoo xam ni li leen taxoon a jóg le 23 juin accords yi ñoo ko gën a dangereux. donc bu jotee ba ñu ne mbir mi saisir nañ assemblée nationale mboolam kuy sénégalais di patriote di citoyen da nga war a génn ñu dem taxaw ci kanamu assemblée nationale des députés bu leen ratifier lii. nous sommes dans un continent qui s'appelle l'Afrique moo tax nag bis ni ki tey il faut ñu won à la face du monde que japonais coréen allemand français américain gënuñu ñu bëgg seen réew. ce qui s'est passé est très ngeen xam ni ce n'est que la face visible de l'iceberg affaire Petrotim benn la ci li xew ci euh, ci ci yi nga xam ne def nañ ko suñu ressource naturelle chaque jour ñu limal leen ni xew noonu la xewee ci ni ñu joxee les blocs de Saloum et de Casamance noonu la xewee ni ñu joxee les deux dernières licences à Total noonu la xewee ci ñi ñu joxee suñu zircon suñu or noonu la xewee ci licence de pêche dama bëgg ngeen xam ni foo laal rek lii xew fii moo xew foofa mbedd mi sax soo fi dox ma dama am léegi sax ci dox ci mbedd mi ndax systématiquement nit ñi dañ lay dogaale apporter le seen soutien euh, wax dëggal ni ñoo ngi yow ci xeex bi ñuy bi ñuy xeex nun passé pour réew mi pour askan wi loolu amul pay te daf ñoo gën a dëgëral ñun ci lii ñu nekk mooy xeex wi gannaaw yàlla lenn mënuñu tere ñu yegg puus ko ba fu mu war a yegg nouvelle bi nag man pour le man pour man pour le man nouvelle amagul. ndax euh, ba fii may toog di wax ak yow jotaguma man notification wu décret xam nga décret radiation acte individuel la acte réglementaire à caractère individuel la ki fait grief contre une personne donc kooku man lañ ko waroon jëkk a balaa ñu koy wax kenn. mais ñoom def nañu gaawantu jox ko presse bi. ba tey jii. jotuma ko gaawantu nañ jox ko presse bi ci parax paraxe boo xam ne signature rek sax moo ci nekk cachet amu ci dara amu ci xaw ma lan lañ doon njëkkanteel ba tax loolu am ba nii ma toll nii man décret bi gisaguma ko ndax man du ma dem télécharger décret ci presse donc comme bi ñu dooree mbir mi ba léegi étape bu ñu mus a toll dañoo yónni huissier. mu ñëw fekk ma sama bureau ne ma dama lay notifier suspension ñu toogaat tuuti ñu yónniwaat huissier mu ñëw fekk ma sama kër ne ma dama lay notifier convocation conseil de discipline waaye bii ba tey ñi ma toog jotaguma amaan nag balaa semaine bi di jeex dina yegg si xam naa yoon bee gudd rek mais tant que jotuma ko man te loolu ci cadre yoon laay wax ci cadre droit considéré wu ma ni man am na act bu ma concerné ndax état moo amatul Sénégal. nee naa 1960 faux départ la woon 1962 faux départ la woon 2000 faux départ la woon 2012 faux départ la woon nañu fexe ñun citoyen sénégalais ba prochain départ na doon départ bu baax ba nga xam ne dootuñu daje fii di xeex ay nit di ci dee parce que simplement benn groupe bu nit bëgg nañu akki moo nguuru Sénégal yéen ñëpp gis ngeen fi xew recul démocratique. ku fi opposé wu ñu attaqué la ci sa vie privée attaqué la ci sa liggéey attaqué la ci sa liberté daal di ci emprisonner des opposants sur une base strictement politicienne dama ne même jamono clandestinité mbir mi egguloon fii gis ngeen ni xew suñuy ressource naturelles ci réew moo xam ne ndaw ñi liggéeyuñu hôpitaux yi doxuñu éducation baa ngi par am na zone yoo xam ne ba léegi amuñu accès à l'eau potable ñu jël suñu mine jël suñu pétrole jël suñuy ressources naturelles suñu géej gi suñu jën yi tay la ko ay tubaab tay la ko ay puissance étrangère ñoom rek ñoo ci bénéficié wu pour dajale ay milliards pour dem jëndi ay carte ay ay carte électeur moo tax nañu xam ni combat boobu du combat Y en a marre du combat Ousmane du combat suñu combat la ñun ñëpp kenn ku ne ci ñun parce que suñu avenir moo nekk en jeu gars am réew waa réew maa koy soppi réew waa réew waa koy soppi lu leen mbir mi jaral dañu ko jaral ay perte liggéey yooyu ñàkk fay dara nañu jaral sax ñu perte suñu bakkan waaye nañu leer ni c'est la fois qu'on mènera ce combat là te doot ñu nangul kenn nga jël réew mi foog ni rek da koo donn wala yaa ko moom. asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñoo ngi am mbégte teew seen kanam. ci ndorteelu campagne électorale élection législative 2017 yi muy lu am solo ci askan ndax solos élection mooy jamono la jox xam ne askan wi war naa mun a càmbar li wees waaye nag war naa mun a xool di war a ñëw ëllëg mooy tànneef gi ñu war a tànn élection yi di concerne lu am am solo cër gu am solo ci démocratie ñu koy wax assemblée nationale ñu war cee xool nag lan mooy situation réew mi situation réew mi duñ leen ko jàngal kenn ku ne ci yéen gis na ni Sénégal bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yu gën a ndóol ci àdduna bis bu ne ngeen dégg coow li am ci yorin gu ñaaw ñu yore alalu réew mi ci wàllu ressource naturelle ci wàllu budget ci wàllu marché public te dara waralu ko lu dul ñi ñu dénk mbir mi teguñu ko ci yoon te assemblée nationale waroon ci am rôle bu ama am solo ndax moom la constitution jox mu war a saytu loolu yëpp loolu nag moom moo ñu dugal ci politique ñun ñii te biñ ci duggee léegi kenn ku ne si yéen gis na taxawaay guñ ci am mu jaral ñu ñàkk lu bëree bëree bari ci suñu am-am ba suñu liberté mu jaral ñu suñu bakkan ndax loolu mooy patriotisme. on a fait notre déclaration de patrimoine. nous sommes les je suis politique boo xam ne sans y être contraint parce que new ma ci post électif néew ma ci post nominatif. j'ai fait ma déclaration de patrimoine. déclaration de patrimoine boobu kenn ci ñoom rek ku ci ñeme rek ku ci ñeme ci ñoom rek. na génne déclaration de patrimoine am waaw nañ ko génne ku ci ñeme rek ci ñoom soo xoolee lii nga xam ne ñun liggéey nañ ko ci suñu parti politique assemblée nationale bi fi jógee lan lañ ko ràññee dañu jël ay coupure de journaux rek observateur nee na l' assemblée nationale risque risque gros Omar Sarr et Thierno Bocoum malmenés Woré Sarr pique une crise et perd connaissance le ministre Bibi Baldé tombe de son fauteuil loolu mooy li ñu assemblée nationale woon enquête nee na l'assemblée des chiffonniers mooy assemblée boo xam ne xiiroo ngaayoo dóorante euh, libération ne asa l'assemblée conteste mais paye mooy bi ñu feeñalee ñun ñi ne assemblée nationale dafay def fraude fiscale mooy lémpo gi ñu fay dagg ci nit ñi duñ ko reverser ñu daaneel ni ci juróomi at yi weesu assemblée nationale benn proposition de loi rek la mus a def ci juróomi at benn proposition de loi ci ñoo xam ne ñoom la constitution wax ni ñoom ak exécutif ñoo am initiative de la loi assemblée nationale bu mel noonu nee nañu mooy li yées ci li musa am ci assemblée nationale ci réew mi te loolu la ñu war a moytu mu amaat ci biir Sénégal ndax dara waralu ko lu dul ñañ fay teg comme président la république mooy toog ci bureau daal di defar listam jàpp nañ ni ñoom euh, député président la ñu waaye du ñu député askan taxawaay bi ñu mës a taxaw ci politique Sénégal ñëpp gis nañ ko ñun bi ñu duggee politique ba léegi nekk nañu député balaa ñuy dem assemblée nationale ndax li ñu tax mu jaral ñu lim ñu jaral ba tax ñu xeex ñu ci liñ ñu xeexee du suñuy intérêt bopp waaye gis luy yàq ci askan wi gis ñuy pasar pasar alal askan wi di pasar pasar ressource réew mi ñu koy xeex ba lii am ci donc kooku su la nee damaa bëgg a dem assemblée nationale pour mottali loolu salaire bi ñu jox député taxul mu jóg parce que fi ñu woon lañ fa doon fayeeku moo ëpp la mën a am assemblée nationale waaye bëgg a continuer xeex ba ci foofu ñu nga xam ne wala fa lañ fa la ñu war a tabb ndaw réew mi moo tax ñu laaj loolu réew mi Voici les résultats des élections législatives. Ont obtenu coalition alternative du peuple 37 446. Résultat du scrutin proportionnel maintenant toujours. Je le nom des, des partis qui ont obtenu un siège de la répartition sur le reste, sur le fort reste coalition Ndaw Askan Wi un élu Ousmane Sonko. chaque année dans cette assemblée nationale ces vaillants députés cette majorité mécanique nga xam ne mun nañu toog di nelaw ba ñu ne voté jot na ñu yeere ne leen talal loxo sànq ñi ngi ñi ngi war a voté benn waaye ñi ngi yëkkati loxo moom ci biti la ne woon xamul lu ñuy wax borom koppati bi dafa dugg rek gis ñëpp yëkkati mu yëkkati kon. Si le budget voté n'est pas sincère, tous les projets qui y sont adossés ne seront pas réalisables. Où est votre terre que vous aviez inaugurée en grande pompe? Dites-moi où se trouve votre building administratif wax leen ma ban étudiant mooy jàng université Amadou Mahtar Mbow wala université Saloum yi ngeen inauguré woon uniquement pour faire du fumage euh, politique. raison blanchiment de fraude fiscale fii la ñu toog. avril 2012 ma bind lettre directeur général des impôts et domaines ne ko fayekul Petrotim suñu xaalis taxe de plus-value bi ñu waroon fayeku ci gannaaw bi ñu defee seen i maguy diggante président rakkam ak Aly guy njaay ak euh, Franck Timis mais loolu ñàkk nañ ko mais suñu demee ba di jaay di spéculer ngeen war a fayeku taxe de plus-value vous êtes inspecteur des impôts vous savez ce que je dis vous on se très bien li Cheikh Gueye di wax kuy tox ak kuy laxas poon xamante nañu réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar je vous remercie. keroog fii dama la interpellé ci lenn nga tontu say député tàccu la waaye yow li nga tontu xam nga ni loolu amut te maa ngi am fii benn arrêté boo xam ne yaa ko signé woon 2014 bi ngay nekk ministre budget ci arrêté boobu danga ne woon indemnité pour frais de yi dañ koy imposer arrêté baa ngi nii soo ñëwaatee ne indemnité boobu duñ ko imposer ban Ablaye Daouda Diallo la ñu war a gëm wala la ñu war a comprendre ngeen ñu si ndax maa ngi nii ak lettre bi ngeen bind Île Maurice daal di dénoncer convention fiscale bi te li tax ngeen dénoncer ko mooy ba ngeen ko signé lépp luy entreprise minière wala pétrolière dañoo domicilier foofu pour bañ a fay impôt kon contradiction yi am seeni politique ak milliards yi ñuy perte loo Sénégal kenn xamul nu mu toll budget bi mun naa ne 86 virgule 8 pour cent recettes yi travailleurs yi ak ménages yi ñoo koy supporté 86 virgule 8 pour cent entreprise yi Sénégal duñu fay suffisamment d'impôt te ña ca nekk di def seen i luubal parce que li tax travailleurs yi di fay mooy dañ leen retenir à la source ñi ca nekk di def seen luubal bu ñu leen jàppee ba redresser seen ci ay milliards yow mi yaay jël sa big ne baal naa leen ko gis nañu remise gracieuse yi gis nañu amnistie fiscale yi ak yeneen ak yeneen ci ay entreprises yoo xam ne yu solvable la ay milliards yu milliards ñu koy sànni ca booba jamono boutiquier bi nekk fii ci bopp koñ bi su fayul patente cinquante mille ngeen envoyé ñu tëj boutique am yërëm leen sénégalais yi chaque fois su ngeen buggee atteindre seen objectif lu ngeen di def créer de nouvelles taxes yoo xam ne ñan ñoo koy supporter c' est le petit peuple c' est les petits de Damba mais ñi war a fay du ñu fay daaw lu ngeen def créer ngeen une taxe sur le ciment nga xam ne ñi koy supporter mooy sénégalais yi bëgg kër te mënuñu ko am wala ñuy tabax di góorgóorlu. bu defee sénégalais ne Sonko ngi xeex assemblée comme ça ngeen casser image loolu nag boobu ba léegi ñu ngi koy moytu waaye loo gis am na fu fu mu yem tànk yaa ngi may xas yaa ngi may saaga yaa ngi may tudd dinaa naa euh, tënk sama xol muñ ko waaye nga ñëw ne danga may attaqué physiquement wax dëgg yàlla tollooguma foo xam ne gis naa góor yàlla goo xam ne ak noo mun ci toll di nga ñëw attaqué ma physiquement ma seetaan comme ñoom nag recrutement nervi ak terrorisme mooy seen spécialité kenn ci ñoom nga xam ne yàgg na maa menacé fu ne ñëw na tey essayé yàlla def na duma naa ko futti naa ko fekkewul sax as euh, séance bi loolu gënaluma woon ni ma ko waxee nii waaye loolu message rek bu ñu leen di envoyé parce que monopole de la violence kenn yoru ko ça va nous directement d'ailleurs ci débat bi fi gars yi suscité avec la presse euh, man dem naa sax ba ne est-ce que c'est pas volontairement fait pour orienter le débat sur autre chose et non pas li nga xam ne moo newoon l'essentiel muy téere bi ñu bind wax ci ci lu am solo ci l'avenir de notre pays muy la ressource naturelle parce que euh, da est-ce que mus ngaa dégg Ousmane Sonko mu def déclaration wala mu bind wala ñu interviewé ko mu ne livre bi interdit nañ ko mosul am biñ koy wax sax man maa nga Paris ça a été fabriqué mais man mosumaa toog ak kenn benn journaliste Sénégal mosumaa toog moom ne ko livre bi interdit nañ ko déet non bu ma laissé bu ma laissé terminer non Facebook nga taal di rectifier tout de suite mais da nga xaar ba ñu entretenir le débat ba pare nga soog a rectifier. xam nga lu ñuy rectifier. tu du temps quand même. non loo def ngay rectifier lu keneen def doo ko rectifier. donc donc ban jour la débat bi am vendredi la am vendredi néew mool Sénégal vendredi. mais fi nga nekk am na internet am nga sa déglu déglu rek si ma terminé dama lay wax ah. wax la lan moo ciy photo presse jeudi laa quitté Sénégal conditions yi ma nekkoon fu ma demoon. mënoo ko xam yow ci sama gannaaw la ñu njëkk a andi débat wu interdiction bi biñ ko posé télé bi par exemple TFM def na ci documenté benn document bu ndaw ci journal pourtant bi ñuy préparé dossier bi woo nañu sama benn collaborateur Bassirou Diomaye Faye ne ko ah ñu ne dañoo dégg li mu ne loolu amagul parce que déposé gu ñu DST bay egg foofu keneen ak keneen teewul guddi gi génne nañu benn document interroger un ministre ak euh, un éditeur ñu ne ñu def un long ku nekk def benn ay développement sur une interdiction mais sooy génne information du ma la jàngal sa métier kuy wax ci interdiction livre ñaari source nga war a am benn mooy ki bind livre bi ñaar mooy DST ñooñu nga war a woo DST le lendemain bi mu defee communiqué am lu mu lu mu wax dafa ne jotaguñu fi benn notification benn livre bu tudd noonu ba pare ne ñoo ngi ñaan nag kuy waxati information yu mel nii da nga ñëw leerlu si ñun balaa ngay wax ça veut dire que même ce minimum defuñu ko kon noo mu ne askanale Ousmane ko wax joo xam ne yéegu ko tinu ko ba pare ne ko mu rectifier première faute bi foofu la amee te teewul li ma ma répété li ma wax fii bi ñu jëlee attache samay collaborateurs nee nañ leen eggaguñu foofu ban besoin la ñu amoon malgré tout génne information tasaare ko ne livre bi euh, dañ koo interdire le lendemain DSC bind ñenn ñi gaawantu ci Facebook ne waa ji waxoon nañ leen du waxkatu dëgg gis nga weddi nañ ko. mais déclaral bi la ñu wax. déclaral ji nga defoon noonu ci temps boobu noonu yëpp est-ce que à dessein pour euh, may sa livre bi buzz aussi. ko buzz wala su dee suba ba ci ngoon. xam nga livre bi soxlawul woon buzz. ndax ñu ko annoncé rek. def na boppam ba pare. du du ko du du interdiction ak autorisation moo koy def buzz. waaw def nañ dépôt légal bi tey ci suba euh, à la direction de la surveillance du territoire parce que noonu la loolu lañ ñu wax ni noonu la war a demee li ci xaw a yéeme rek mooy ñi ñu waxtaanal ñëpp amul kenn koo xam ne. Euh, jot nañu see jox ay détails par exemple ban loi moo ko prévoir ban lan mooy cadre bi est-ce que c'est simplement déclaratif mooy da nga yëgle kese wala est-ce que demande d'autorisation la yooyu yëpp daal dese naa leer waaye li ma gis ci communiqué bi direction nationale de la police def semaine passée bi rumeur yi amee ci interdiction bi li ma gis seen communiqué bi mooy ku publier livre bitim réew boo ko dugal douane dalay laaj cutis bu DST donc da nga war a jël ñetti exemplaire yóbbu ko ci DST ñoom ñu xool ko xool ndax téere bi amul lu mën a indi lu mën a yeefin na ci réew mi wala yu mel noonu doog la mën a jox kitus gisaguma nag base légale bi laaj naa ay éditeur nga xam ni seen métier la euh, ñu ne lu ñuy def la mais mënuñu ma wax ci kenn seen base légale la moo tax tey ci sama lettre bi ma leen jébbal ñoom yemuma rek ci jox leen exemplaire yi waaye dama leen ne pour mu mu gë mu gën a leer suñu mënoon gindi nañu même suñu joxul texte ñu jox ñu référence yi bu ko defee ñun ñëpp nañ def gëstu bi ba xam lan mooy base loolu. Euh, loolu nag souvent anam yu mel noonu ay législation yu yàgg yàgg la nga xam ne ci jamono état totalitaire nga xam dañu doon contrôler lu fiy dugg lan moo jógee ci telle idéologie wala telle autre idéologie ci jamono yooyu la fa daan nekk ba léegi ñu profité si nag xam nga rek politicien ni mu mel. def ko benn jumtuwaay boo xam ne tey ku bindoon téere boo xam ne danaan nguur gi ñoo gën a baax ñoo gën a rafet ay nañu jaru sax ngay def dépôt légal waaye ku bind sa bind safaan wa façon tracasserie bu ne di nga ko am pour mun a euh, publier téere bi daanaka dama ne woon sax man li ma ci war a wax naa ko ba noppi parce que loo wax a wax a wax euh, ba bind ci ab téere boo xam ne def na deux cent cinquante deux pages teg ko te ba tey amagul lenn loo xam ne ñoom ñi mën nañ ci dindi benn virgule wala lu ñu mën a conste contester ci accusation yi ma fa def teg ko ci ndodd Macky Sall ci boppam ci Aly Ngouille Ndiaye ci euh, euh, Amadou Ba ci euh, Franck Timis ak ci Aliou Sall luñ ci mën a jël ba ne lii diffamation la ñoo ngi dem tribunal kon kooku la ma jàpp mooy la ma ca bind mooy dëgg jusqu'à ce que ñoom ñu mun koo génne moo xam bind nañu téere bu wane li ma du dëgg wala ñu accepter débat contradictoire boo xam ne ñoom ñoo ñu ngànkoon mbir mi ñoo ñëw toog ak man ñu débat wala ñu nekkoon wax na lu dul dëgg wala teg na suñu kaw lu dul dëgg ñoo ngi dem tribunal te benn ci loolu amagul kon li ma jàpp man te askan wi war koo jàpp mooy li ma bind ci téere boobu mooy dëgg téere boobu dafa tënk lu bëri c'est vrai que téere bi bi ñu koy bind contrat totale bi amaguloon hmm. contrat totale bi dama génne téere ba pare mu doog am waaye contrat petro ak li ci xew ci gannaaw bi diggante petro Timis Cosmos ak dossier bu mel ni Ovi du Tender ak gazu Gadiaga bi nga xam ne moom la euh, américain Forteza di di exploité ak genn genn yooyu yëpp traité naa ko ci biir li téere boobu li ma ci bëgg a wax ci gàttal mooy la gestion ni ñuy ni ñuy ni ñuy yoree suñu alal ci réew mi yemul ci pétrole bi rek mu nga ci or ba mu nga ci zircon bi mu nga ci euh, ressource naturelle mi ngi ci géej gi suñu jën yeeg nangu ni ñu ko yoree catastrophe la non xalaatuñu ko ñun kay teel nañ cee wax defe naa bi mu wootee mi ngi ma fekk tournée Casamance journaliste yi bi ñu ma laajee laa leen ne ah Macky Sall de su ma séenee ci dialogue boobu xam naa Bob Marley la seen. amee ah, lu tax parce que xam nga Macky Sall dafa war a respecter nit ñi su bëggee ñu respecter ko c'est important Macky Sall kenn la ci sénégalais yi ëpp fi njàng ëpp fi xam-xam ëpp fi juddu ëpp fi kenn la ci sénégalais yi sénégalais yi par erreur d'ailleurs defe naa parce que bu extraordinaire. parce que bëggoon nañu jë jëlee fi Ablaye Wade doyaloon nañu rek sénégalais yi jël ko ci 14 millions de sénégalais ne ko jiital nañ la mais tekkiwul ni moo gën nit ñi su foogee ni moo ëpp nit ñi xel dafay nax boppam Macky Sall benn du c'est pas un homme de dialogue dama bëgg loolu sénégalais yi xam ko. parce que léeg-léeg noonu la ñuy naxee sénégalais da ngay dégg ñu ah waaw kii de moom du nitu jàmm comme kay wootee na ne dialogue nañu dem rek Macky Sall du nitu dialogue bi mu toogee ba léegi lan la fi lan lañ ko ràññee. utiliser l'État l'administration la justice les forces de l'ordre pour ku àndul ak moom rek mu dal sa kaw ñii tëj na leen ñii rajee na leen ñii génn leen Sénégal ñii réprimer leen ci mbedd mi loolu rek la xam benn ñaareel bi bu defee ay tappaleem ba xam ni jàpp nañ ko mu nekk dos au mur mu ne dialogue moo fàttali leen histoire u dialogue yi 2016 woote wu fi dialogue salle des banquets woo sëriñ si woo parti politique yi woo man bi ñu waxee laal ne dew ma fa ñu def quatre heures de temps foofu xam nga ndax yéen a ngi koy fàttali ko mu toog Abdoulaye Daouda Diallo toog xaw ma kan ak kan ñu def seen cirque dialogue boobu fan la mujje mos nga dégg benn commission bu ñu woote wala benn rapport bu ñu ne dialogue bi la ñu toogaat mu jaxase élection législative yi mbuxum ko génn ci woote dialogue ñun opposition bi ngeen tuddee yéen journaliste opposition significative ñun ñëpp ñu ne demuñu ca parce que xam nañu day tappale mu am ci opposition bi ñu fa demoon ana ñoom ñëpp gedd nañ ana PUR ana Aïda Mbodj ana Fada ana Aïssata Tall Sall ñi fa demoon ñëpp dem nañ ba gis ni waa ji da leen doon bubboo parce que len na ko intéressé woon mooy parrainage mu génnaat ci loolu ne maa ngi woote dialogue ci pétrole Macky Sall sànq na suñu pétrole ak suñu gaz ba noppi d'accord naa nag dem dialogue ak moom mais ci benn fànn benn condition mooy dañuy commencé jaloog bi ca amoon pré pétrole ba bi ñuy commencé dañuy commencé te duñu yem ci pétrole bi nañ ci dugal or bi nga xam ne Sabodala la ñuy bëgg a rey Kédougou nañ ci dugal zircon bi nga xam ne jox nañ ko français yi ñuy yóbbu ay tonni zircon te Sénégal amu ci dara dinañ ci dugal suñu licence de pêche yi ñu daje pétrole beeg gaz bi ñu daje ñu commencé ci nañ ko naka lañ ko découvrir ñaata lañ ko xaymaa ci ay capacité naka lañ ko joxe ak kan lañ ko jox ak ci ban anam lan la ci Sénégal di am par ak lim ci waroon am dëgg dëgg dëgg loolu yëpp bu ñu ko dajalee ba pare bu buggee ñu waxtaan nag ci loolu ñu ciy am naka lañ koy jëfandikoo. Sénégal ba mu daj je suis le seul homme ba mu daj bañ bu ñuy laaj lan nga ci wàllu gëm-gëm du lu ma gêné nag. te dinaa ci tontu mais dama bugg rek wane ni laaj bi ci boppam mi ngi induire stigmatisation d'une catégorie de sénégalais loolu mooy premier problème bi muy Sénégal ku fi am sikkim sa jabar di muuru bokkoo Sénégal nekkoo citoyen te loolu buñ ko appliqué woon moom defe naa du murit du tijaan du xaadar du layen parce que li ñu wax yépp weesuwul ay mandarga nekk jullit màndarga islam ma profitoo ne débat bi ñu élection bi ñu jëm am na ñoo xam ne tey ñàkk programme ñàkk gis-gis am profil yoo xam ne senegal yi seexlu nañ ko ak ñenn ñoo xam ne parce que système bi dafa tooyal seen ceeb waxuma la de Cheikh Yérim ñooña ñëpp ñi ngi fexe ba élection yi ñu jëm du doon élection bu ñuy débattre ci programme ak avenir Sénégal waaye élection bu ñuy débattre ci lan mooy murit ak lan mooy xaadar ak lan mooy layeen la bu leen ko nangu bu leen ko parce que du loolu mooy enjeu bi Sénégal bu baaxee baaxal Sénégal yëpp waaye bu bone bonal Sénégal yëpp tey amul ku ku amul xeet wala diine wala tarixa boo xam ne amul nit ñu fa bokk te ñu ngay souffrir parce que réew mi doxul lay suy war a doon suñu yitte mooy nu ñuy def ba Sénégal baax te sénégalais bu ko war a mën a def moo xam ate nga moo xam chrétien nga moo xam jullit nga moo xam témoin de Jéhovah nga moo xam ci biir jullit ci tarixa bii nga bokk wala bii wala bokkoo fen su dee sénégalais bii moo yor li soxla ci xam-xam si njub ci yi set ak ci bëgg réew mi nañ ko teg ci bopp réew mu doon nga sax mottali wax bi ndax bàyyi nañu benn ndax nee nañu MFDC laa bokk tamit mënoon nga ci boole booba. bu ñu demee nag ba ba cim réew bu ñu demee ba nit jàmmaarloog nit jàmmaarloog système. ñu dem ba mënaluñu ko dara ci wër nañu fu ne pour ut dossier buñ ko yóbboo ndungu siin barki Dembo Ndiaye la Aly Ngouille Ndiaye convoqué benn homme d'affaires naan ko dama bëgg nga wax ni immeuble bi Sonko moo ko moom waa ji ne ko duma ko wax parce que moomu ko donc bu ñu demee ba fu ne jaar nañ fa mënuñu gis dara ñu dellu toppaat say tànk ci yeneen anam dugg ci vie privée ak leneen ak gisuñu dara ñu ne léegi nañu fexe ba dugg ci li nga xam ne Sénégal mosu koo xam mooy waasoo ak gëm-gëm Sénégal musul xam loolu mi ngi doog a bees ci Sénégal à ma connaissance tey rek lañu ñu commencé dégg ñu naan ethnie walla conviction religieuse nañu fàttaliku ni Senghor bu muy jiite Sénégal ñoom sëñ fàll doon ko jàppale. bokkuñu sax diine waxuma laa ñu naan est-ce que ñoo bokk ay tarixa mais li may dellu rek mooy samay conviction personnel kenn tudd ma ci franc-maçon te yàlla xam na ni yàlla xam na ni boo dindi woon franc-maçon ci classe ci système bi dara dootu fi des kenn tudd ma ci li may bañ tudd te ñu bëri ci kenn musul ne usmaan Sonko sàcc na fukki dërëm te ma nekkoon ci position boo xam ne mënoon naa jël ay milliards samay moroom a nga ci nekk di politique ci faneen waaye gis ngeen ne ay milliards lañu yor kon loolu mooy li war a liiteel sénégalais yi la ca des nag mooy maa ngi sant yàlla ndax fépp laa bokk fépp laa bokk bu ma demee Touba day mel ni sama kër laa nekk ñu yaatal ma fa teral ma berde ma bu ma demee Tiwaawoon même chose barki de bi ma demee seeti sëñ Maodo dafa ma gis rek laxasuma ne ma sama doom jaa ngi nii maa la bëggal sama xol te gisee gu ñu woon kon soo liiree parti bi ma développé ci lool di nga xam ni man maay le prototype abouti et parfait du sénégalais sëpp laa bokk. foog a dem progressivement. di monter en gamme donc loolu la ñu proposé ci livre bi mais soo seetee lépp nag mi ngi tourner autour de l'industrialisation programme industriel la ñu bëgg ci réew mi avec des PMI PME mais aller progressivement vers deux ou trois grands champions dans certains secteurs comme la pétrochimie comme yeneen ak yeneen nga am ci deux ou trois yoo xam ne dinañ mën a propulser l'économie je crois que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 li ma ne dañuy renégocier les contrats on veut sortir du franc fa on veut reprendre notre économie en def préférence nationale ba suñuy entrepreneur am priorité ci keneen ku dul ñoom fii ak yeneen ak yeneen gis nga lool lenn rek moo mën a tax nga réussir ko mooy sa askan nekk sa gannaaw à tout moment bis boo coupé woo avec ton peuple tu ne peux donc man loolu laa gëm li ma gëm mooy gor boo toogee ci kanamu nit ñi ne leen dinaa def xam nga am na yoo xam ne ça n'a rien à voir ak la réalité du pouvoir su ngeen ma falee dinaa andi mandat bi 5 ans ñu fal la nga maintenir mandat bi 7 ans c'est pas la réalité du pouvoir. gore di rek la du leneen mais suñu duggee ci logique yooyu rek dañuy dugg di justifier di justifier loo wax ñu ne la saawaay réalité di pouvoir de. Thiès ce 20 février 2019, la foule scande un seul nom. Entouré de ses partisans, Ousmane Sonko profite de la liesse populaire. Né à Thiès, grandi en Casamance, l'enfant prodige est de retour dans sa ville natale pour faire campagne pour la présidentielle avec un maître mot, indépendance. On a une chance historique d'être définitivement et réellement indépendant parce qu'on ne l'est Et partout où il même ferveur. Bon président, il est le... À 44 le plus jeune candidat à la présidentielle et l'étoile montante de l'opposition sénégalaise. Chef du parti PASTEF Les Patriotes depuis 2014, député depuis 2017 et candidat en 2019. Une ascension fulgurante en quelques années, car cinq ans auparavant, il n'était qu'un haut fonctionnaire inconnu du grand public. Diplômé de l'ENA, il fait carrière dans l'inspection des impôts, d'où il est radié en 2016 pour avoir manqué à son devoir de réserve, en dénonçant des abus et des anomalies fiscales, suffisant pour lui donner la réputation d'un opposant incorruptible à Macky Sall. lii jot jot na campagne électorale la ñu nekk jamono proposition la jamono teg ci table bi lu concret la ñu dëgg fecc mumbaay bi bëri bu affaire bi waaj a jeex waaj yeeg ci tribune bi jël micro bi ñaari minute jeunes yi ko amul liggéey wala lan moo doxul ci réew mi ñëpp ne woy nga ne bravo dinaa leen jox liggéey cuune waratul laaj réew mi désormais le peuple sénégalais va être très exigeant vis-à-vis de ses acteurs politiques am nañu un programme ambitieux en termes de politique économique te ñu ngi koy lal sur l'impératif je pèse bien mes mots l'impératif d'industrialiser ce pays parce qu'on n'a jamais développé un pays sans industrie am nañu un programme social bu ngeen dul gis fenn mooy fexe ba généraliser le système de prévoyance sociale ba sénégalais bu ne moo xam menuisier bi mécanicien bi moo xam jànq bi liggéey ci biir kër gi moo xam chauffeur de taxi bi moo xam coxeur bi ñoom ñëpp mun a am une couverture sociale mun a am couverture maladie mun a am retraite comme tout le monde. ñu ngi sant yàlla gannaaw bi ñu bokkee ci juróomi sénégalais yi nga xam ne am nañu sañ-sañ tey mun a taxaw daal di sàkku seen kóolute ci quatorze millions de sénégalais. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax baax waaye ñu leen ciy gërëm yéen it nga xam ne vous avez été des milliers et

jox nañ ko avion bu muy tukkee pour bañ a tardé fenn bu génnee ñu war a taxawal circulation bi mooy mu romb ko ñu war a tànn nag jox ko gëdd ku toll noonu tànneef bi ñu koy tànnee warul doon du yomb wala du oyof duñu tànn nit ndax ñoo bokk xeet wala ñoo bokk diine wala ñoo bokk tarixa wala ñoo bokk dëkk waaye dañuy tànn jiital kii ñuy tànn ndax bokk na ci ñi jub ci réew mi te njub gi war nañ ko mën a xoole ci taxawaayam ak jaar-jaaram dañuy tànn seet ndax kii ñuy tànn xam-xam bi mu laaj ndax yor réew du caaxaan est-ce que mu nga ca moom waaye dañuy tànn seet kii ñuy tànn est-ce que bëgg na réew mi ba jaral ko ay sacrifice li tubaab di wax patriotisme. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. comme suit. Macky deux millions cinq cent cinquante quatre mille six cent cinq soit cinquante huit virgule vingt sept pour cent Idrissa Seck huit cent quatre vingt dix huit mille six cent soixante quatorze soit vingt virgule cinquante pour cent Ousmane Sonko six cent quatre vingt sept mille zéro soixante cinq soit quinze virgule soixante sept pour cent. ñee ci yooyu taxawaay bi nga xam ne balaa élection bi di am nguuru candidat sortant di Macky Sall amoon na ko ci doxal doxalinu boppam moom dong li ñuy tuddee processus électoral waaye gis nañu it bésu wot bi lii nga xam ne ci ay centre yu ñu yu ñu taxawal la te jaarul yoon. wala ay centre yoo xam ne lim ba ëpp na li yoon maye wala li ñu wax transfert d'électeur bëri na sénégalais yu jóg war a dem wote te ñun ñëpp xam nañ ni wot constitution muy ndeyu charte réew mi moo ko may kenn ku ne amul kenn ku war a am sañ-sañu tere benn sénégalais sax mu wote mu bëri sénégalais yu taxaw xëy ci suba dem ne dañuy wote ñu ne leen du ngeen wote ndax bokk leen ci list yi te boobu jamono seen carte dugal na leen ci liste yi ba joxañal leen bureau de vote bi ñu war a wote yooyu yépp nag moo xajamal élection bi ba tax biñ ci gis génnee mbooleem seen candidat opposition yi te muy guleet Sénégal wala daal gëjoon nañ ko dégg diggante 2000 ak tey guleet Sénégal ñu génn ci élection ña doon jàmmarloo candidat sortant bi yépp kenn nanguwu ci reconnaître élection bi waaye kenn nangu ci jël téléphone woote ne ma ngay félicité muy gulet ci senegal lool li mu firndeel mooy mbir mi xajam na ba noppi am na lu ci ñuul tuuma bu ñu teg ci daru Ousmane Sonko di chef de parti bu ñuy tuddee PASTEF di député à l'Assemblée nationale ne dafa siif ab gone gu jigéen ni ko ki doon introduire waxee léegi kooku du wax ku ndaw ndax siif dafa am lu mu méngool ci tëralinu yoon ñu ne nag dinañ ci joxe suñu version wax ak sénégalais yi ci wax joo xam ne dañoo bëgg mu lalu ci dëkk bëri na sénégalais yoo xam ne walla li ci ëpp ci sénégalais yi kenn mënul dugal seen bopp ni Ousmane Sonko siif na nit ci li ñu gis ñun. ci waxtaan yeeg ci commentaire yeeg ak yu mel noonu la ci ëpp kenn mënul dugal seen bopp ni Ousmane Sonko mën naa siif nit surtout ci anam gi ñu ko waxee Ousmane Sonko dem na ci bërëb génne ñaari fetal joxoñ ko nit ne ko di nga tëdd ak man forcé wala ma boom la loolu gëw ma ni am na sax ab sénégalais boo xam loolu mën na dugg ci. boppam waaye li ci gën a yéeme mooy defu ko benn yoon da koo def dem ba mu neex ko mu dellusiwaat ak ay fetalam joxañaaj ko même personne bi euh, imposé ko li mu koy imposé génnaat dem yoonam ba mu neex ko mu ñëwaat def ko ci bërëb boo xam ne la fa nekk ci ay nit nu mu tuuti tuuti war naa mat juróom benn wala juróom ñaar loolu lu yéeme la moo tax gëw ma ni am na sénégalais boo xam ne loolu mun nañ ko dugal ci boppam mbir mi affaire la bu ñu nas boo xam ne ministre de l'intérieur ci boppam moo yor mbir mi di ko tiire ak procureur te dinaa ci indi ay firnde su jotee liy firnde complot bi bari na waaye dinaa ci wax yenn parce que yu bari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 ma fas yéene wax Sénégalais ni du ma uyu ji ëllëg parce que ab député mënoo ko convoqué en tant que accusé tant que teggi woo malaanu kiiraayam muy immunité parlementaire loolu nag boo ko waxee dañ daan parce que sénégalais yi ñenn bokk ay raccourci la ñuy bëgg soo ko waxee dañ daan non s'il n'a rien à se na dem wuyu déedéet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 waruñoo tàmbal nit ñi ni mën nañoo jalgati loi saa su leen neexee bu dee wax dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee bu ñu ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10 heures à 10 heures maa nga foofu uyu leen mais fii rek defuñu ko duma dem uyu ji leen comme nag parce que ci réew mi lañu dëkk te sénégalais yu baax ak patriote yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu soo ko ñëwee na ngeen ko jàpp mandaa de dépôt immédiat parce que li bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mën a wax loolu tax ñu wax tey jàkkaarlook sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne nañu respecter la procédure de lever de l'immunité parlementaire waaye xam nañ sañ am nañu sañ-sañu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 da Sonko mooy suñu yaakaar tey mooy suñu yaakaar ëllëg wax ma sax Sénégal sax wax ma incarnation de la jeunesse sénégalaise mais Afrique ndax góor bu toll ni Sonko amul ñu daara luñ koy tuumal lu dul ay viol. ngay àtte xool ci lu mu la jaral ci mbiram àddina lu la ci jaral bu la jaralee jàmm jëlal bu la jarul jàmm jëlal Ousmane Sonko du am picc muy jàpp di ci kaaf Ousmane Sonko ay bakkan lay laaj door tëdd ci kaso bi Ousmane Sonko ay bakkan yu bari wala deret yu bari lay laaj. lu la jaral jël ko dégg nga lii nag du xeexu fii xeexu senegal gépp la région yeeg département yéen ñëpp na ngeen jóg taawul xam ne seen seen vie ak seen vie génération future mi ngi en jeu. mais Sonko moo tax ma gën a gëstu politique di koy bëgg parce que xam nga lu tax suñu homme politique dafa am loo xamante ne tey jii dañ ko tàmmal di ñuy sosal di ñuy fenal loolu dafa dak jamono Mamadou Dia fekkewu ma ko jamono Cheikh Anta Diop fekkewu ma ko. jamono Ousmane Sonko laa laa fekkee jamono yonent yi fekkeewu ma ko jamono Jésus jamono prophète Mohammed fekkeewu ma ko jamono Moïse fekkeewu ma ko parce que ñoo xamante ne ñii suñu biir dañuy dëgg jamono Cheikh Anta Diop dañu ne man Cheikh Anta Diop su doon di dund kon damay fekk damay damay bokk ci xeex bi wala ñu ne jamono Mamadou Dia bu doon di dund kon damay bokk ci xeex bi dama ne Ousmane Sonko moom moo représenté Thomas Sankara moom moo représenté Mamadou Dia moom moo représenté Cheikh Anta Diop yow ngi gis yëpp ku nekk tey jii nii peut-être am na liggéeyam mais xee bu ñu xee du pour ñun pour suñu génération la ñu bëre ñu ngi seen biir kër war nañu gën a taxaw ñi xam xee bu ñuy xee pour ñoom la Sonko tey jii nii daf jaral na ko ñi rajee ko man mii di taxaw ak yéen wax naa ne dama feebar mais jaral na ma dee man jaral nañ ma xoolal tey jii nii ñu dem suul ma prison lu ndaw la pour man ragal ma ragal ma prison dama ne dee saa ragal ma ko je serai un martyr pour sauver sa pays. duñ nangu kenn ku ko sacrifié ñun on est prêt pour tout suñu leader duñ nangu kenn ku ko sacrifié wallahi lazim. alors muy situation bu doy waar dañ ñoo encercler woon léegi donc mënuñu woon joxe ci xibaar sax. Ah, ndax voilà mu nekk ba dafa da dafa. amul ragal amul baay képp ku yaakaar da nga détourné yaa ngi nax sa bopp moom la ñu gëm dañuy yaakaar sa bopp ñu ko teg ba mën ci mën a génn te ba mën ciy génn sama yàlla. mën na nekk ci àdduna ñu kër président Sonko euh, comme vous pouvez le constater.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 bro dara du la dara incha allah. yëpp en tout cas li ëpp Sénégal dañ ne lii gëmuñu ko laata sax man may gën di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañ naan dañu ne lii ñun gëmuñu ko loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus a wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le ñun sénégalais duñ ñu gën a gore. gërëm ñi nga xam ne di bële le 8 ñëw nañu doog man ci kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye si la bokk. mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekke duma yi fekke bal yi lépp ñu bokk ñoom ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom na bokkuma keneen ak keneen su ma ne su ma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen li liñ leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog te keroog dañu dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ñi liñ doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu la ndaw ñi wone keroog may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bii lañu teg ci projet bii nga xam ne moom la ñu bokk ngir definitivement nooteel. ak ni ñu yoree Sénégal nga xam ne lottal na sénégalais jóge fi lii lépp nag lii lépp Macky Sall ak état dajale ko jubluwuñ si lu dul nu ñuy nu ñuy nu ñuy faagagalee benn adversaire man de xaw moo ni am naa dayoo boobu ci senegal lii lépp nga dajale ko def sa complot mobiliser moyens yëpp pour faagagal benn adversaire rek ndax adversaire adversaire boobu. wër nga fu ne pour am fu ñu jàppee ñeen fu ñu ko mën a jàppee ni mës naa jël ci xaalisu réew mi ba may nekk ci biir di liggéey mës naa jël dërëm gu mu moomul ci xaalisu réew mi wala mës naa jël ay terrain yu moomul wala mës naa fu ne nga wër ko amoo ko nga nekkoon kon naa génn ci loolu dem ut ci vie privée fu ma koy jaaree pour faagaagagal ko. ñu may Macky Sall mukk mu utiliser ak yu bo caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téye woon Ousmane Sonko du tax projet bi takk. loolu tam wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu. li ma waxoon ci sama génn bu njëkk bi mooy Macky Sall xamul droit Macky xamul yoon Macky bu xasee ba yëkkati projet ne tey ma faagaagaal Yacine Fall fii rek askan wi taxawul ne ko lii d'accorduñ si Macky Sall kenn mënu koo tere mu def ko moo tax ma ne man. dinaa taxaw jàmmarloo ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye dinaa ko résisté mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor nguur waaye du yomb ci moom de mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice. bu ko kilifa woowee mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama koy wax ni bii part bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy na li muy rendi na na na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom. foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaan kiiraay ma dem fa may wax yi nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko. même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee. wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ci du gàtt waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi. te bu may jox enquête bi aussi c' est le fruit du destin c' est à dire moom bu mu koy def defu ko ndax euh, man fii laa dëkk bu xoolee laa dëkk c' parce que a confiance en moi et il sait que jamais été partial mais nag toutefois saa yi ma mën mënee jàppale nit te yàlla tax dama koy jàppale c' est à dire tout le temps quand je sais je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice je trouve un moyen de l'aider parce que moi c' est ça mon Adji Sarr bu ma ko bu ma commandant bi boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii du ma créer problème Kamil baa ngi balaa may commencer en fait damay waat c'est-à-dire man kenn xamee wu ma caaxaan je suis un très bon ma ne ko lu tax ngay posé loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yëg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital Fann quoi ma ne ko. ma ne ko pour quoi mu ne ma bu ko yéegee dinaa am problème donc vous vous imaginez nit di porter plainte contre c'est-à-dire le, le, le premier opposant d'un État africain di la laaj est-ce que patronam dina ko yëg est-ce que vous pensez que nit ku conscient dina wax loolu ci audition mbay bi Sidi Mbaye moom mu bokk si léegi avec les questions qu'on a posées bu ñu paree mbay aussi il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses mu génn et que capitaine ju génn bàyyi ñu foofu parce que dañ ko woowoon sur une autre affaire léegi Mbaye aussi quand il a fini il a signé le PV il revient vers il me dit est-ce que duma si am problème yàlla moo dama est-ce que duñu si am problème ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na mais y a pas ma ne ko ici les gens sont impatients. tribune Sweet Beauté nekk loo xam ne lu ndaw la. Mm-hmm. parce que Sweet Beauté doomu aadama Sonko moo a yàlla dafa dem sonk Sonko mënul nit ñi xam. Hmm. mais fii lu fi ñëw si nit ñi siw ci nit ñoo xam ne nit ñi xam nañ leen Sonko moo ci gën a tuuti. Hmm. te man mi nga xam ne maa moom salon bi man mi nga xam ne maa yor samay annonce di wuyu samay téléphone xam naa bu baax li may wax. Hmm. dañoo yor suñu registre de commerce yor ni ne yàlla yor autorisation boo xam ne nii dañoo may pour ñu ubbi institut bi. ñu war a def massage. comme ni ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk ngi tombé jour tabaski. man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër. Mhm. ak sama benn doomu jigéen. jour boobu bu ñu fiy ñëw ñu ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi. mu mhm. ñëwee mi ngi fekk man sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu a ñëw ci kër gi. dama mhm. ko sonalee mu tëjji mu ne ma fii c'est Imosène man ko noonu fii Sweet Beauté Spa la. d'accord mu ne ma ah ko waaw ma ne ko ama euh, seen boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro. numéro numéro dafa numéro. numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29. sama numéro moo nekk 800. non waaw. 842 waaw 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn cible moo leen tàkkale. Hmm. man mënuma xëy journée ba journée bi jeex te nit du ma woo ne ma si Imosène. donc aji génn xale bi jigéen gunge ko fii aji génn 4 4 moo taxaw angle fële angle bee la taxaw. Hmm. aji ñëw ñaar ñaari góor la ñoom ñett lañ. kenn ki mooy dawal ba ñaari góor ñoom taxaw ci oto bi wéeru oto bi di nii di ko xaar. di ko xaar waaw di ko xaar aji ñëw dugg digg bi lu dugg kenn ki ñu seq ko ci digg bi ñu dem loolu laa ci am. pour liggéey parce que téléphone fixe bi moom laa taaloon téléphone fixe bi bu tàkkee ay menaces de laa ciy dégg. wallaahi ay la woo di la. wallaahi ay nit di la woo man mu boo génnee ñu dagg sa bopp booy bu ma génnee hôpital ba léegi ñemewumaa taxaw ci buntu kër yi. déedéet. ngi am ay soxla yu ma war a doxee. loolu lan moo gën a métti. ne ma 15 euh, millions yi fekkee da ko xeeb 40 millions mi ngi nii. nga dugal la si nga sànni sa version taxaw ne Sonko de moo def lépp sama insulte laa doon encadré mais Sonko moo violé booy bi man ko sëñ bi gannaaw ngaa dof gannaaw xamu leen man du fen lu am kese laa yomb a korom mbay sàngoo suuf. dossier bu Sénégal lépp xam. maanaam mooy dossier Adji Sarr parce que euh, bu ma bindee rapport bi ba tey euh, mën naa wax ne awma jàmm donc euh, boo nee Alpha Sénégal c'est le dossier et c'est la persécution que je vis mooy lu ma dund daal parce que ma loxo ci kaamel su ma loxo ci kaamel mus ma xam problème bi nu mu demee bokkuma ci benn complot bokkuma ci benn préparation suma kër laa tëdd ñu ooma waaye euh, lu ma la wax léegi nii euh, j'étais devant une personne très calme très posée qui n'avait pas l'impression qui me donnait pas l'impression d'être en danger et d'avoir été en danger journée boobu métti woon na trop ndax j'ai reçu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'appels beaucoup d'appels da yore capture bi et euh, tout tournait autour de lu nekk ci biir faut euh, réquisition. il faut réquisition gendarmerie wala police. waaw à un moment sax yónnee naa euh, maître Sow. Mhm. Gabi ma ne ko man dama sonn. Mhm. je veux rentrer chez moi. Mhm. ma ne ma ñibbi. Euh, assistante maître Sow. Gabi Sow moo ñëw avec un sac un sac assez gros hein. alors comme malade ñëw jël je pense que jël na rendez-vous d'ailleurs auprès de la secrétaire. mu ñëw comme malade turam egg si mu ñëw dugg si euh, ne ma bon mosoon nga ma gis ci ginnaaw euh, waaye bi yoon euh, diw moo ma yónni met soo moo ma yónni ma ne ko lu ma buggoon mu ne ma nga oo ko ma ne ko non fu mu toll nii maa ngi liggéey mënu ma ko oo mu ne ma c'est urgent ma ne ko du ko oo même si c'est urgent du ko oo mu ne ma ok waaye daf ma jox benn yóbbante pour yow ma ne ko jëru ma yóbbante delloo ko ma ne ma ah ma ne ko waaw bon ci loolu wax joojule suma euh, assistante hôpital euh, service bi dugg si ma def ko si mu taxaw waaye elle a ouvert les xam naa ñàkkul na gis na. xaalis bi saa ko xaalis <laughs> nga bañ ko. ah euh, hmm, jëluma ko daal. Mm-hmm. après mu ne ma oui. c'est de l'argent ma ne ko oui je peux deviner mais euh, ça ne m'intéresse pas mu ne ma docteur vous êtes en train de cracher sur beaucoup d'argent ma ne ko oui beaucoup peu c'est pas important euh, ce qu'il y a lu ci am solo moo di jëluma ko delloo ko boromam. daw nañu dem nañu. dem nañu. dem nañu. Bon, il faut compter, il y a une voix contre. Il y a une voix contre, c'est notre collègue, c'est C'est son droit, c'est son droit. C'est Mansour contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent Une voix, donc. Deux voix contre, deux voix, deux abstentions, donc 98 voix pour. Dengenou 98 voix pour. Contre une voix, abstention, deux voix.

ñoom dañoo amoon li tubaab bi wax objectif principal mooy dañu amoon lu leen tax a jóg loo xam ne mooy seen yitte bi gën a rëy yitte boobu mooy lan mooy fexe ba ala kulli xaal 2024 Ousmane Sonko du doon candidat élection présidentielle li ma wax dafa am solo na ko ñëpp. di wax tamit nii Sénégal amul kenn koo xam ne tey umpale nga umpale nga ni lii complot la. ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogeewuñ ko woon. ñëpp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ ko lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu nee Ousmane ko neen du dem ñuy indi fi GIGN wala BIP. fexe ba jaxase affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrander délit dem tëj ko teyit toujours ci gis-gisu avocat yi mooy dem ak ñàkk dem benn résultat bi la mooy boo demul it dañ fi yónni armée ñi fi nekk dañu résister peut-être wala suñu résisté wul xale yi dinañ jóge fële résister deret dina tuuru waaye yàgg yàgg yàgg da nga dem kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñoom ñëpp bi ñu daje ñëw taxaw ñaan ñu insister joxe seen conseil ñu déglu leen lii lépp nag moo tax ba ñu waxtaanee déglu ñépp ñu wax sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu bi ñu ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge huitième cabinet war a wax ak nun waaye loolu tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw xeex bi commencé gul sax xeex bi ñun de mën nañ ci ñàkk ay dunq waaye mag Macky Sall dina ci ñàkk nguuram ci nii walla ci nële dugg na ci loo xam ne amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafetlu amul kon lu ñuy xeex la ba fu xeex bi yem. sàmm na ab jaam di ko xam na bëb sunu borom sàmm na ab jaam di ko xam yàlla moo fi ne billaahi walaay taalaay ok jërëjëf Moriana ñoo ngi lay ñaan xaaral ñoo ngi dugg ci VDN bi yoon bi Ousmane Sonko waroon jaar ngir dem wuy ji ñu wax takk der yi ñu baare leen maanaam buñ fi jaar ñoom nee nañ ñoo koy tànnal yoon bi mu war a jaar. dañoo bëgg a dégager Ousmane Sonko. tey jii nii dafa mel ni Ousmane Sonko bëgguñu mu ànd ak ndaw ñi te ndaw ñi tey dañoo ñëw ne dañuy ànd ak moom dañ koy exprimer seen mbégte exprimer seen coofeel tey jii nii ndaw si. bon pour le moment jàpp naa ne warul am polem parce que président lañ convoqué tribunal muy dem te jàpp naa ni kenn waru koo wutal yoon bu muy jaar donc fi lañ bëgg a jaar wax naa ko officier bi mu ngi concerté waa autorité yi maa ngi taxaw di ko xaar pour le moment daal loolu moo fi nekk ko waaw dafa mel ni rek bu ngeen seetloo li nga xamante ne mooy li fi am dafa taxaw fii nga xamante ne moo di rond orange moom président Ousmane Sonko ndaxte cortège u président Ousmane bëgg dem wuyu ji fi ñu bëgg jaar mayuñ leen ko dafa mel ni ñi nga xamante ne ñoom doy force de l'ordre yi dañ koo bëgg a imposer itinéraire bu muy jaar. moom président Ousmane Sonko ak ndaw ñoom àndal nee nañu jaaruñu nooñu dañoo am seen yoonu bopp dañ koy respecté moo waral ñu téye ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko fii nga xamante ne moo di rond point orange moom président Ousmane Sonko fi nga nii avancé moom président Ousmane Sonko tey jii mi ngi nii taxaw na fii nga xamante ne moo di rond point orange ndaw ñi di ko exprimer seen solidarité. président ci boppam moo ne ma nañ jaar pour le moment jàmm leen bëgg quoi voilà. tey jii nii ngir bëgg jàmm ngir bëgg jàmm ak salaam il vient d'obtempérer il vient d'accepter il vient d'accepter est-ce que sax acceptation la est-ce que nekkul ne daa amatul parce que gis nañ ne kat réew mi jaay doole moo fi am fi mu bëgg a jaar fexe nañ ba ne du fa jaar. suñu baax la ñuy joxe suñu baax Sonko rek waaw ñun ak moom ba ba ba ba ba tey ñun ñoo yeddoog moom ñun ñoo fanaan ak moom waaw amul amul amul ragal amul. Sonko on est déterminé à faire tout on est déterminé à défendre notre leader jusqu'à la fin oui il faut que on respecte les gens dans ce pays-là voilà on a d'autres choses à faire mais on, on a laissé notre boulot pour venir soutenir Ousmane Sonko c'est pas logique ce qui se passe c'est pas logique Il faut faire la politique autrement. C'est pas respectueux dans ce pays-là. ma ñëpp tas. même même la presse quitte quitte quitte à ce qu'il rentre après les gens vont prendre un mandat d'amener parce qu'il joue en réalité. oh c'est une triste nouvelle. nee na tout le monde même la presse. oh métti na dina métti. gisandoo nii ngeen gis nii image yi ngeen gis mooy oto Ousmane Sonko parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy waa GIGN ñoo ngi jaay doole bëgg a jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy d'abord euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy assurer sécurité Ousmane Sonko pour bëgg a jël Ousmane Sonko jël ko yóbbu ñu ngi koy kidnappé di ko yóbbu ñoo ngi kidnappé ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko di ko ñoo ngi kidnappé ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko di ko yóbbu lii faw ñëpp gis ko ñoo ngi ko bëgg a kidnappé di ko Oye, oye. Agua fulín que lo antoine preta. ñu dem ba mu jeex gis ngeen gars yi leen coo amul gars ngi gën di ñëw ñoo ngi gën di ñëw gars ngi gën di ñëw toog ne ne leen suñu tëjee te yëngatu na nañu am fayda gis leen ñoo ko gisandoo gis leen ñoo ko gisandoo gis ngeen. élément ñu ngi jéem a progressé mais métti na métti na gendarme ñu ngi régressé gendarme yi ñu ngi dellu ci ginnaaw gendarme yaa ngi ñëw ci ginnaaw. gendarme yi ñu ngi ñëw ci ginnaaw dafa mel ni grenade lacrymogène deful dara xale yi grenade lacrymogène deful dara xale yi may gis nii yi ma gis nii xale yi ma gis nii dañoo déterminé wu policier ñu ngi reculé policier ñu ngi reculé policier ñu ngi reculé gendarme ñu ngi ñuy door ñu ngi reculé jalaat jëlaat nañu seen positionnement ni xale ñu ngi songu brigade ñu ngi songu brigade de recherche bi ñu ngi songu brigade de recherche bi. ñaaw na de. tëj na wala fajiri grand. nee xam ne xaw jot dëkk bi. ñàkk sama la. maa koy wane. tele ci poos na ko nekk jël sa di live. di live wan li xaw ci dëkk bi parce que Macky Sall moomul dëkk bi moomul Sénégal moomul dëkk bi parce que Seydina Mohamed moomul dëkk bi son bras à cause de grenade. L'agent perdu son bras à cause d'une grenade. Il a perdu le bras. L'agent de GIGN a perdu le bras à cause d'une grenade. Il a perdu le bras. C'est extraordinaire ce qui se passe. On le dit, c'est grave la Colobane. C'est grave. gis nga ñi ngi daw ñi ngi daw ñii ngay daw ñii duñ fa ay nit xoola xale yi golf la de golf a un qui attention, attention. Des réunions, regroupements, conspirations contre l'État, des actes de terrorisme et de vandalisme sont notés. Ils relèvent de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Face à cette situation particulière, le gouvernement tient à rappeler son attachement au respect strict des principes de l'état de droit, de l'intégrité physique

am ngeen droit terrain bi ñu jóg leen dinañ la mën yóbbu en bas campagne après campagne ana moom ana moom bu nekk kon xam nga ni liggéey bi ak bëri donc deuxièmement euh, liggéey bi c'est simple waaw ah, yomb la quoi ñëpp dañuy ñëw benn benn benn benn. wallaahi mbër yaa ngi nii di toroxal askan bi du musul am. lii police moo war a def réaction de ñaari xale ñaari xale yoo xam ne jotewuñu dara ci xeex bi ñu ko ñu ne ñu ko bokk atam rek ba ñoom ñoo mujj sax di jébbal xale bi leen masaw voilà ñu filmé ko ay nervi yu ñuy recruté wallaahi lii ñaaw na réew mi fekk ni la nar a doxee moom wala xam nga ñii moom ñëpp ay policier ay bant lañ yor ay yat laay ay yat lañ yor ay yat mooy gars yi APR gars yi mënu ma wax ci kaw nag war na yàlla mënu ma wax ci kaw mais ñi ay yat lañ yor ay gars APR ah, da kii xaw a xaw kii wallaay yàpp la ñu yor yàpp yàpp ñun ñëpp ay yàpp la ñu yor te ay yàpp la ay yàpp ay marché wallaay ay gaz ma wax kaw instant bi gis nga nii ba fàttali ne mouvement dañuy dem police ñoo leen di pour ñu yokk violence bi waaw lii maye doole ànd ak policier di yor say yat ak yi du yoon baax a baax a baax a wax nañu gannaaw tey te incha allah tant ñoo ngi fi duñu foofu noppi naam déglu bañ leen war a déglu defaguñ ko ndaw nag bu naree réer wala mu nar a sànku bu ko mag di wax du ko déglu ndax day foog ni position ya mu yor tax na waratul déglu kenn day foog ni position ya mu yor ku ko ñaan njëkk sañ naa bañ waaye mag moom la di ëkk wala mu di xeer ndaw di nen bu dalee ci kawam mënul muuswaane ba gaañ ëkk boobu ñun ñooy ndaw ñi dañ leen bàyyi xel jox leen orma te di leen déglu di leen bàyyi di leen consulter balaa dara di xew di leen consulter bu dara xewee di jël seen xalaat ak seen recommandation di ko jëfe bu ñu ko defee duñ juum de waaye bu fekkee dañu dañu réer ngir lañu wër ngir corne yi ngir klaxon yi ngir moto yi ngir ndaamaar yi ngir ngir ngir alal yi ngir ngir ngir su boobaa on va passer à l' essentiel maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxe dafa nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek gis euh, takk der taxaw dégage non c' est pas ça un peu de correction pour nos populations sans lesquelles nous n'existerions pas yàlla na yàlla def ndaw ñi déggante ak mag ñi ndax loolu mooy richesse su réew mi ndaw topp mag mag yërëm ndaw suñu ko defee rek mu am jàmm xale yooyu tëdd te ñu jam leen balu fetal je puis vous assurer maa koy wax kenn sànq man koy xam ne moo gaañu Bignona ba ma ko gisee mu tëdd deret bi di couler j'ai pensé à mon propre fils mort aux États-Unis sans personne pour le secourir bàyyi ko gisant dans une mare de sang en bordure de route quelle misère j'ai mal mais dama jàppee kooku na sama doom jàppee njaboot yu Sénégal yëpp ñi nga xam ne mën naa leen jur comme sama doom ñi nga xam ni ñoo ma mag comme samay way jur ñi nga xam ne ñoo maase ah ma def leen nijaay parce que nangu naa loolu waaye nag am na foo xamante ni il faut que yërmande ñu jiital ko te yërmande boobu nag ca mag ñi lañ ko yaakaare ndaw ñi ñoom ñu toppante te jëfe ndigal asalaamaaleykum wa rahmatullah nekk ci forêt dense bi lay intervenir ñu indil ñu ay char de combat char de combat waay waay kaskas ak ay ay déet déet déet waa ji mété la yor mété mété li Rambo di guerre mété la yor na ba def nii kar karaj daal koy delloowaat ay déet déet déet déet déet aux abords du palais de justice de Dakar, les soutiens d'Ousmane Sonko réunis par centaines pour célébrer sa libération. jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi ne lañ déedéet suñu jeunesse daf dañu jël dañu am avance yi ñun ñun li ma mooy suñu jeunesse dañoo am avance yi ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor lu la mën a rey yor lu la mën a gaañ yow yoroo lu say loxo te defoo ko parce que da am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen wax beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gaalama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni tey door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteurs politiques yi si seen waaw lañu ñu war a doxee yéen la ñu war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytul dina ëpp liñ ci mën a jëlee. maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi mosolin ma dégg ma ne ko président Macky Sall Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi proximité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu woon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan bi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall day wàcc par parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax révolution bi am na ba noppi kenn mënatu ko arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu ko arrêté la révolution ya marche te naa leen dégg naa leen itam message yi nga xam ne ñoom la ñu ma yónnee rawatina si kilifa diine yi message la yoo xam ne mënuma si bañ a ndax képp kuy wut jàmm ci réew mi jàpp naa ne ki jiite réew mi ngay gën a wutal jàmm te lépp lu lu laal askanu senegal ak commenti laal suñu metti ci man mi lay gën a metti moo tax li ñu ma ñaan di doxal jàmm fexe ba mbir yi mu dox si ngir mu wàcc jàmm am ndax jàmm loo ko jëndee jar na ko lii rek moo waral ñun ñu doxalee nii man mi nga xam ne nag man la yàlla jiit def ma jiite réew mi tey jii lépp luy sama kattan ci nguur gi danaa ko def ngir jàmm jooju ñu ñaan dellu si si réew mi dal dellu si si réew mi na réew yoo xam ne citoyen xalam ñemewul xalaat ne di nga dem di attaque gendarmerie gendarmerie fa la arme yi nekk nga dem di ko attaque tribunal nga dem di attaque di yàq di taal këru jàmbur yi comme ça gratuitement mais loolu jàll na mais loolu mënatul am. maa Sénégalais yi nag ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu métti métti. su ma sañoon en tant que sénégalais su ma sañoon ak ak cofeel gi ma am ci réew mi moo wax leen luy dal seen xel ne leen mbir mi dina baax mbir mi dina dox waaye malheureusement demewut noonu waa ji ñaari at yi di ñëw yëpp politique la koy def talatul luy gérer luy gérer réew mi talatu ko ñun ñu bëri dañuy interpeller nañu yéen a def erreur parce que bañ ko jekkoo ci mars nga xam ne bu ngeen bàyyi woon gone yi heure bi nekkatul président waroo leen woote ne tegg leen seen tànk ma tontu leen ne leen erreur amu ci réew boo ci nekkee séq kook ay pàcc pàcc bu nekk di ay kilifa ku nekk da nga koy jox cër te looloo taxoon ñu def ñu def te rëccuwuñ ci dara mi ngi noonu mettez les cœurs mettez les cœurs ce qui se li amul li amul li mësam Parcelles Assainies ñoo ngi xolu Ndakaaru xolu Ndakaaru Dakar nee na waaw Parcelles nee na waaw au pas de course au pas de course au pas de yaa ngi daw xale yaa ngi daw xale yaa ngi daw ku mën na def ku samay engagement yi ma jëloon en tant que candidat la présidence de la république ba léegi dara di nduuf si mooy su ma yàlla tegoon ci bopp réew mi alalu réew mi dina dellu si si réew mi te loolu nañ ci soriwaat nañ ci waxtaanaat muy li nga xam ne yor nañ ko yorin goo xam ne jox ko tubaab yi ak ñeneen xeet yoo xam ne du ñu ay sénégalais ñoom ñu ciy am euh, euh, euh, ñaata quatre-vingt-dix pour cent dama ko tudd juróom-ñeent fukk ci ci ci téeméer ñun ñu am ci fukk rek ci téeméer loolu dina dakk ci Sénégal ci nii wala ci nële mais loolu fonction wu président la waaye man en tant que maire dama ne naa commencé foofu maire lan la yow gérer woo ressources naturelles yi gérer woo diplomatie gérer woo armée nangam nangam waaye code général code code collectivité locale nee na nag bokk na ci attribution maire mooy moom mooy tuddee yoon yi ñu ne donc boo jëlee ñoo xam ne dañoo ñëwoon noot say maam duma leen rey leen def leen loo xam ne kenn mënu koo nettali ñu jël leen tuddee leen say yoon bañ koy tuddee ñoom ñoo dominé woon parce que jamono colonisation la ñu tuddee woon yoon yooyu ñu dem ba am indépendance suñuy njiit sàggan càggante goo xam ne amuñu fulla bu doy bu dul suñu maam yooyu nga xam ne ñoo doon jàmmaarlook ñooñu ñu jël leen tuddee leen tur yooyu xam nga doo dem France ba gis tut yoon bu tudd Hitler wala yoon bu tudd Göring parce que souvenirs yi ñu ci am mooy ñooñu ñoo leen nootoon duma leen noo mënee ñëw fii nga dem jël général euh, lieutenant Lemoine ak lieutenant euh, euh, nu mu tudd Triche Euh, nu mu tudd lieutenant Javelier kenn ku nekk histoire la lieutenant Javelier dafa jël ay nit na yóbbu leen par force première guerre mondiale ñu dem ñoom ñëpp ñu rey leen foofu kenn dellu siwul ñoom ñu koy rendre hommage ñëw tuddee ko ab yoon ci Ziguinchor yeneen ñaar ñi dañoo dem di xeex di rey di rey ba nit ñi organiser wu foofu dajeek ñoom ci benn dëkk bu ñu tuddee Séléki ci xeex boobu moom ñu rey ko ca ñu jël ko tuddee ko yoon pour rendre ko hommage par rapport ak xeex bi mu doon xeexal France pour noot suñuy maam ñun ñu am indépendance plus de soixante ans plus tard ñu continuer bàyyi tur yooyu loolu jaadu na ñu nekkoon loolu dañ ko fiy dindi te ñu ko dindee benn bu nekk li mu méngool lañ ko tuddee ndax bu ma waxee tirailleurs sénégalais dama rendre dama rend hommage tirailleurs sénégalais yëpp ak à commencer par ñoo ñu nga xam ne Casamance la ñu jëloon yóbbu leen Europe ñu rey leen waaye ñu gën koo yaatal bu ma nee caaroy 44 ñëpp xam nañ ni caaroy 44 suñuy maam yu xeexi woon la par force ba dellu si yàlla muccal leen. ñuy laaj seen payoor fu ñu doon fay tubaab juróom ñu leen di fay benn ñu laaj seen payoor ñu boom leen fii caaro yi ñoom ñëpp ñu boom leen kon bu ma nee Séléki mille huit cent mille huit cent soixante trois mille huit cent soixante six dafa am lu tax parce que foofu la xeex boobu amoon ba ñooñu daan ñu tuddee leen tur yooyu kon soo koy dindi da ngay seet li mu méngoon nga tuddee ko loolu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 gox fuy commune wala département te nekk ci biir Sénégal fu ñu fas yéenewul teg suñu tànk diggante bis ki ëllëg ba mois de juillet deux mille vingt allah tournée boobu dafa di loo xam ne yéen Sénégalais yi yéen ñu ko laaj yéen Sénégalais yi yéen namm Ousmane Sonko ñëw fekk leen seen gox saafonteeg yéen.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 fekk ñu ngi nii Popenguine euh, waaw fi lañ ñu fekkaat toppaat ñu fii am Popenguine fu ñu dugg ñu ñëw fa voilà gendarmerie yéen a gis gendarmerie ñu ngi nii waaw xam naa ne peut-être dañoo bëgg a def euh, benn demi-tour waaw gendarmerie mu ngi noonu waaw fekk ñuy def suñu visite de proximité en fait euh, ñuy def seeni tournée ñu ngi tourné waaw ñoo nekk nii ak seen bari nañ fi trop waaw gendarmerie ñu ngi nii waaw bari nañ fi ñu ngi Popenguine Popenguine euh, séeréer je waaw ñu ñu ñu ñëw fa en fait ñoom ñu ngi ne xoolal yeneen a ngi ñëw ah, ñu ngi am na benn te léegi dañoo fermer accès yi. dañoo ñëw ba ci accès bi. ñoom ñuy gis nga. gendarmerie ñu ngi ne le dañoo ñëw ba ci accès bi dem taxaw fële baara yoon bële. demaat ba ca yoon bële. ñu baarawaat beneen yoon bi. en fait ñu ngi ne le ci yoon bi. voilà ñu ngi nële ci yoon bi baare yoon bële ñëw ñu ñu nii ci kër ñun ñu ñëwaat demaat ba ci yoon bële baarewaat yoon bi tëj yoon tëj ñu yoon bi ñaari voies yi nañ tëj voilà. voilà ñu ngi nii y a pas d'attroupement les voitures circulent les gens sont Sonko mu ngi ci kër gi du guddi nemmeeku ay mbokkam donc. kon dégg ngeen ko nee na faites les disperser ñoo ko déggandoo mu ngi noonu nag te alors que ko président Sonko nii ci kër lu dugg kër ñu ngi nii naan leen faites les disperser ñu ngi nii yéen a ko déggandoo juste rek rappeler leen que ni dañu nekk depuis ce matin bi ñu jugee Ndiaga ñaaw dañu ñëw Joal euh, kër gi ngeen di gis kër goro la du président Ousmane Sonko la mu duggoon fii di nuyoon teg ñoom donc gaa yaa ngi nii fekk ñu fii doon ñu grenade lacrymogène disant que on fait attroupement te gis ngeen bi kenn occupé ko woon amul benn ful bu fi amoon donc juste rek pour fàttali leen lii seede la ci li mu doon wax démb que ni ñun dañuy dem nemmeeku sénégalais yi moom day dem nemmeeku sénégalais yi provoqué wul kenn tooñul kenn mais gis ngeen lii weesu na tooñ. le président dans son lii nag kenn mënu ci dara lii la yàlla dogal te ñoo nangu dogal lii la yàlla dogal te ñoo nangu dogal. ku nangu dogal doo sonn ah yéen a ko dégg noonu ils encore dooraat grenade lacrymogène ci oto yoo xamante ni dañu jóge fi ñu nekkoon di ñibbi ça c'est le régime de Macky Sall. des ordres qui sont manifestement illégaux qui ne sont assis sur Ce pays vivra jusqu'en après 2024. On sera tous ici. Mais ce que je dois faire, mes droits, je les, je les exercerai. Absolument. Personne qui ci àdduna mënu ko def. Mais vous êtes pour ça. Mais lan moo fi am ba ngeen di jóor lacrymogène. Vous êtes en de faire ma tournée. C'est que vous ne Vous êtes en de faire ma tournée. Si vous m'avez resté, il aucun problème. Tous ceux qui sortent là. Mais moi, je ne les Dieu m'est témoin. Hier, j'ai fait un live. J'ai dit, je ne fais pas je ne fais pas une campagne. Je vais trouver les gens là où ils moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens sortent. loolu foog ma et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymogènes. man dëgg sax su ma fa demee jaaree je vais chez le khalife général des Mourides. quand je sors les donc loolu yàlla moo yeggee jiwaalo la jafe-jafe yi commencé ndax fekk nañ fa ci takk der loo xam ne jéggi na dayoo te ñun ñëpp ñu xam ni takk der yooyu la ci ëpp tey la jóge Ndakaaru ñu mobiliser leen andi leen fii ci département de Mbour ngir suñu tournée niñ koy tuddee mooy intimidation la ko ñëpp tuddee waaye man jàpp ma ni intimidation la li ma jàpp mooy ki leen yebal ñoom ñëpp muy président Macky Sall tiit na tiitaange goo xam ne jaaxle na jaaxle goo xam ne ñàkk naa gëm yàlla ñàkk gëm goo xam ne parce que lu jeex jeex na loolu yàlla bi ko yàlla tuddee ni moom moom la yàlla da koo yombalal yépp waaye bu yàlla tuddee ni jeex na màndarga yi day feeñ ne fang dañu fas yéene waxtaane mooy li nga xam ne moom lañu ñu bëgg a def muy actualité ci jamono ji lu leen ko ciy wax lu leen ko ciy bind muy convocation bi nga xam ne convoqué nañ ma ko ëllëg bu soobee yàlla ci midi moo war a dem jàkkaarloog doyen des juges ñuy sant yàlla bi convocation bi amee ndax lu ñu exiger woon la ñun suñu bopp kon moom ku mu yóbbaale la bëgg yaa deux ans laa leen njëkk a génneel théorie la stratégie di chaos mooy lu muy def ba réew mi jaxasoo rek xeex am fu ne guerre civile sax am si mu profitoo ci ñun waruñu ko topp ci loolu moo tax ma ñaan leen ne lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sandarme ak alkaati ñii mu jëlee leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñëpp dëdd ko romb dem def joxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñëpp doxi seen soxla ku dul amul soxla da nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbisi te bu ñu ñibbisee dinaa dellu si waat nag ci loo xam ne lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa leen wax kañ la dajale ñépp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam ni complot bu ñàkk fayda ba pare ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip dañu am ci firnde loolu lañu ñu eh, jàkkaarloog fi mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gars yi fu ñuy mujje dañu seetaan fu ba bët di mujjee gi wanteen wanteekam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee looloo jafe ma baamuwaat ne leen bii bi mënuma cee dem kaso dossier bi mënumaa tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu la ñu bëgg a jëm lii ngeen ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexee waaye du léegi. Ousmane Sonko mi ngi noonu Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi yéeg ci 4-4 bi nga xamante ni mooy 4-4 bu bu bu bu bu maraw moom Ousmane Sonko mi ngi nii mi ngi tàllal loxo presse bi. mi ngi noonu mi ngi sol tout blanc moom Ousmane Sonko fa seene wu ji ki nga xamante ni mooy doyen des juges la police la police encadré la police ñi ngi ko encadré euh, parce que xëy na bu fekkente ni am na nu doxee gis nga dina xaw a indi tuuti mu xaw dégénéré mi ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy garde corps garde corps mi mi ngi noonu di dem. Euh, yéen a ngi gis noonu oto Ousmane Sonko bi mu ngi noonu. Euh, dèjà gars yi ñu ngi ànd ak moom euh, gardam bi wàcc na euh, li nga xamante rek moom mooy moom mooy li nga xamante ni moom mooy cortège bi fi mu ne nii lu ñu gis nag moom mooy ndaw ñi ñu ngi commencé ñëw un à un loolu constat ma commencé def la parce que dellu ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi ak Ousmane Sarr Ousmane maa ngi lay nuyu. ñu lay fay waaw. tey de li ñu fi indi rek mooy ñëw pour gunge gi nga xamante ne nii moom mooy le président Ousmane Sonko. parce que dañu gëm ne xëy na sax mu ne bu kenn gunge mais man li may wax gars yi comme man bokkuma Pastef du ma militant Pastef affaire bi concerné wuñu ñun nag li ñu concerné mooy Ousmane Sonko ki nga xam ne dañu am yaakaar si moom Afrique am yaakaar si moom donc kooku buñ koy woo ñun dañuy ñëw pour gunge ko mais ñëwuñu en tant que ay militant Pastef wala en tant ay ñoo xam ne dañu ay sympathisant Pastef lañ mais dañuy ñëw en tant que ay sénégalais ne ki nga xam ne am nañ si moom yaakaar ngir mu changé Afrique ngir mu changé Sénégal kenn mënuñu koo xañ te dañuy ñëw te lépp luñ ci góobee ñu gar lool moo waral suñu tànk fii tey. doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su. Euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer quinze minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu pare substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parquet boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagages toog yàlla ca pare kon interview munoon na yem foofu audience bi munoon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax i fallait ñu bind ko ci dossier bi ku la jiiñ mënul andi benn preuve benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce que di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test sa ADN. ñi kilifa yu toll nii yëpp daje def seen complot ba ficelé ko complot bi claté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi din du ngeen ci sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret parce que ñàkkuma fulla ba foofu avocat yëpp xam nañu lii du yoon waaye ñun jàng nañu nag dofuñu man nu mu tuuti tuuti am naa DEA en droit am nañu ay avocat am nañu ay magistrat nañu bàyyi dunguru gu ñu nekkee ci Macky Sall te doxal yoon suñu buggee jàmm am ci réew parce que ma waxaat ko moo tax ma yoon gars yi jotagul dem leen toog bu dee bëgg nañu taal réew mi rek nañu essayer def lu ñu warul def ci dossier bi dégg naa Macky Sall ku mu gis ne lu fi xewoon du fi xewaat lu ko raw moo fiy xew nañu delloo ci seen xel te respecter sénégalais yi. dootuñu nangu kenn noonu réew réew mi bañ naa de dootuñu fi nangu bu mu jaar. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu déet dootuñu fi nangu buumu jaam. yoon ngeen di ñaw baax na si ñoom bu seen pooju ndey yi bañ kenn du leen boom bii yoon ngeen di wax booy réew mi kon boog ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xaj lañu yu dee c'est maa ngi tudd usmaan Sonko di sénégalais à cent pour cent juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi jàngee fi ma ci jamono jii ñeent fukki at ak juróom ñett 48 yu nekkoon fa ñu nekk di ci fortaatu lañ cey fortaatu munoon nañu ne cell ni ñëpp toog seetaan réew mi te bu saaku ceeb doon jar 100 dinañu am luñ ko jënde waaye dañoo toog ak suñuy moroom ba gis ni réew mi fi mu jóge baaxul waaye fi mu jëm a ko yées ma feddali lewaat leen billaahi wallaahi wa tallaahi du ngeen mus a toog ba ne am nañ déception du musa am bi ñu demee ba gis ni diabolisation bi doxul ñu gis ni lañ doon wër ci ay dossier pour mën na ne mës naa jël dërëm fii wala la ne amul ñu ne kon nañ ko organiser ab complot fenk nañu seen fen boo xam ne fenn mosu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ca njëkkoon jublu mooy nañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi amee ñu dellusiwaat ne comme loolu am na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggante bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram tas njabootam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 na dem jënd ay arme Israël na dem jënd ay arme Ukraine na def lu ko neex waaye su delluwul gannaaw dinañu xeex ak moom gàtt sa sa rek léegi gàtt sa sa ñaari weer a ngi nii ci rapport boo xam ni nee nga sa téléphone nga ko yore dama imprimer buñ eggee ci juge bi la deux nga ni ko buqeet teg ci taabalu juge bi boo nekkul buqeet nag man damay sàmm sama kàddu bu ñu ko wul bu xeet man buñ ci tegee semaine dinaa toog am na leen benn journaliste bu ma laaj léegi tablette bi nii ma toogee laay toog bu ma ñëwee ñu teg projecteur ci ginnaaw ma wax leen kan mooy Ousmane Sonko. mu neex ko nag ak mu naqari ko man sama procès ak moom bu ko neexee mu bañ a ñëw yoon may na ko ko bu ñëwulee daan bi day gën a gaaw vingt-neuf milliards laa koy laaj te wallaahi azim bu bu ma yoon joxee vingt-neuf milliards ci lay xam ne lépp dëgg la. dinaa dem këram lépp lu mu am ma saisir ko ba mu mat sëkk bu laajee saisir kudd wala tinam yi muy dëppeeg lépp dinañ ko saisir Maïmouna Dièye mais gis ngeen ñi nga xamante ni mbooloo mi bi ñu jógee ci mairie Patte bi dañu toppoon Ousmane Sonko euh, bi ñu ñëwee euh, dox tuuti ba wàcc premier doodaan bi boo jógee fi nga xamante ni mooy euh, mairie Patte d'Oie di wàcc dañ fa door mbooloo mi tasaaroo ñu dawaat ñu moom oto bi continuer di ralentir mbooloo mi ñu takku takku di dem ñee jël autoroute bi Sonko jël yoon bi nga xam ne moo jëm si kër fi nga xam ne mooy Maïmouna Dièye léegi dugg si na bi ñu ñëwee aussi police nee na na mbooloo mi génn buñ taxaw ci buntu gi bi mbooloo mi duggee nag après police euh, am na si ñu génn am na ñu des ñu door lacrymogène dégg ngeen ko. Sonko ngi noonu di génn Sonko ngi noonu di génn Sonko ngi noonu di génn c'est des jamais vu. Thank you. la dañuy dem certainement leur premier coup de le face entre le peuple et là quelques éléments qui répondent manifestement à un ordre illégal ils répondent à un ordre manifestement illégal on ira à Mbacké on sera on y va ils ont tiré des lacrymogènes ils ont tiré des lacrymogènes sur le véhicule du président Ousmane Sonko ils sont en de gazer le peuple sénégalais mais on ne bouge pas mi ngi noonu ñi ngi ñuy sànni ay xeer ak ay mais le dispositif est correct le dispositif est correct ñoo ngi noonu certainement vont-ils attaquer lii la gouvernement bi lii la gouvernement bi lii lii la état bi comme vous le voyez ils ont lancé un projectile direct sur le véhicule du président Ousmane Sonko lii moom nuroo naag tentative d'assassinat mi donc comme vous le voyez c'est avec un cœur rempli de joie nous sommes toujours au poste malgré attaques malgré yëpp ñoo ngi accompagner le président Ousmane Sonko. nit mënul ci Sonko moom mi nga xamante ne mooy borom agenda bi nga xamante mooy dicter le rythme de la politique sénégalaise. L'eau est sortie, l'eau mi ngi noonu exceptionnel exceptionnel Makela Makela le festival de Louvière Mbacké le festival de Louvière Mbacké le festival de Louvière Mbacké exceptionnel exceptionnel le président Ousmane Sonko destination le palais du tribunal de Dakar mi ngi noonu borom oto yaa ngi klaxonné élèves yi génn président Ousmane Sonko mooy ñëw exceptionnel Sonko Sonko ces étudiants sont conscients de leur avenir regardez ces images bip moom moo oto moo rentré oto bi président Ousmane Sonko waa bip ñoom ñoom ñoo ñëw dugg directement dans le convoi forcé ko mi ngi noonu ñoom ñoo rentré le véhicule du convoi du président Ousmane Sonko mi ngi noonu. gannaaw étape bi tension bi xaw wàcc ba convoi Ousmane Sonko bi jëlaat yoonam jaar ci corniche bi pour dem tribunal bañ demee tribunal nag. la xew ci biir salle ba ba tax ñu renvoyé waat procès bi li ci ëpp ñett la benn bi mooy ab juge bu yàkkamtee daan kenn ci ñi mu war a jàkkaarloo ci koo xam ne yow da ngaa war a tëddee njaaxaanaay yi. génn rek euh, prési prési di commencé c'est des sympathisants qui étaient venus le soutenir yàlla def na ils avaient eu la possibilité d'accéder ci zone bi nii nga xamante ni moom moo di euh, tribunal bi malgré li nga xamante ni moom moo di. la forte présence. jëm ki nga génn na président génn na mi ngi noonu juste à hauteur de la radio RFM et de l'Observateur le président Ousmane Sonko mbooloo mi nag la Macky Sall mënul muñ maanaam depuis quelque dafa am lu xew lu bees ci réew mi te benn doomi aadama donk lañ koy teg muy Ousmane Sonko mooy amatul droit circuler comme ni mu ko neexee. di saafonteeg population xool leen li takk der yi def mbooloo mi doon wane seen cofeel jëme ci Sonko. policiers yi léegi imagine leen fii ñaata doomi aadama ñu fi mënoon ñàkk seen bakkan. ñaata ñoo fi mënoon daanu oto ñëw jaar seen kaw ci ñoo xam ni xeexuñ yoruñ gànnaay provoqué wuñu kenn seen cofeel lañ doon fësal jëmi ci benn jëmm bu ñu jàpp ni dañoo dëkkee di ko tooñ. mi ngi noonu ils ont tenaillé le véhicule du président Ousmane Sonko mi ngi noonu fii lañ ko tenaillé lan lañ ci bëgg lan lañ ci jublu. président Ousmane Sonko mi ngi noonu yéen gis oto bi bloqué oto police moo bloqué li nga xamante ni moo di véhicule président Ousmane Sonko. bàyyi woon président dem day fekk jeex na mi ngi noonu tiire waat nañ waxoon naa leen ko tiire rek la ñu xam waxoon naa ko. waxoon naa leen ko. eh tëj ma tëj ma avec vous votre difficulté, vous ne pouvez du ñoom ñoo koy wax fu muy jaar te looluy dëgg citoyen bu nekk dafa am liberté wu circuler comme ni mu ko neexee te dara du ko tënk bi Ousmane Sonko réclamé ak ak yelleefam boobee

Des éléments de la police lui auraient demandé d'emprunter un tunnel, ce que les membres du convoi ont refusé, euh, craignant une éventuelle attaque. Le ton est monté, les partisans d'Ousmane Sonko ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et l'opposant a été extirpé de son véhicule par les gendarmes, comme l'attestent plusieurs vidéos. Une vitre de sa voiture a même été cassée. Ousmane Sonko a finalement été reconduit chez lui euh, dans un véhicule de la gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez pu constater la violence policière et nous allons vraiment dans une, vers une situation qui pourrait être dramatique. On n'a plus la liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, concrètement, euh, depuis ce soir, Ousmane Senko est en vérité en liberté surveillée. Ils ont quadrillé en fait tous les accès vers sa maison. Il ne peut plus sortir. n'est-ce pas de justice. Donc nous sommes entrés maintenant dans bi dafa waroon de presse ñu ne ko doo génn waaye il est sorti marché accompagné de ses gardes du corps te da nekk na ñu topp si ginnaaw bloqué convoi bi moom moo ngi ci ànd ak ses gardes rapprochés di dox fas dem siège. def conférence de presse bi comme ni mu ko passionné woon def donc la police poursuit son opération d'intimidation donc Ousmane Sonko mu ngi nii di dem siège à pied parce que son convoi était bloqué par la police. lii moo xew fii si la kër góor gi ngeen la police qui arrête qui va arrêter Ousmane Sonko ah. moo xew si kër góor gi. il tire sur Ousmane Sonko. nee nañ du génn këram. donc garde yi il refuse de le mettre en sécurité et il refuse il refuse catégoriquement oh waaw. mettre en sécurité de force donc ils l'ont convaincu de rentrer. alors dafa mel ni. xolam naxari na lool lool lool lool. donc ils ont barré partout gis ngeen fële na la ñuy jaar aussi dañ ko barré. donc nous sommes en train de rentrer la maison.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 réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa déedéet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. bi yoon lu di wax ñaw baax na si ñoom. bu ñu toogoon seen pooju ndey yi bañ marche kenn du leen boom bii yoon lu ngeen di wax boy yi ñoo doon taal réew mi kon boog ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xaj lañu yu dee c'est bien fait pour eux bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër te ba tey mënu leen gis benn nervi bii yoon lu ngeen di wax si bii chasse à l'homme on assiste à des exécutions publiques où sont les droits de l'homme bi publiquement la ñu leen di faat ci kanamu en plein jour c'est un message de terreur ils sont en train de nous dire le prochain parmi vous qui ose manifester ce sera à son tour hey frère ils veulent qu'on voit tout ça c'est une mise en scène macabre et sanguinaire ils veulent qu'on voit tout le sang de nos frères pour qu'on arrête de réclamer justice et surtout qu'on arrête nos chants révolutionnaires hey mbokk sa du yaa ngi gis kii tànge nu muy yoote di raam si biir dënn yaa ngi gis ñu ngi lay préparer psychologiquement si jamonoy dictature yii nu nar a jëm alors kii terrorise kii nekkatuñu ci jamono ay discours yu gudd jaru ko lenn rek laa leen di laaj li ma leen di laaj mooy ndax pare ngeen pour xeex li ma laaj dama ko jaarale ci ñi fi teew rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble di peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk échan ñi fi nekk nii tubarfakala macha allah ñépp xam nañ ni ndaje bu mel nii bët musu koo gis ndakaaru waaye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 abal nañu. Ousmane Sonko doit comparaître jeudi devant un tribunal de Dakar. C'est sous bonne escorte policière que l'opposant sénégalais a quitté son domicile. Sans ses partisans, bloqués par les forces de sécurité qui quadrillaient son quartier. Engins blindés, gendarmes mobiles et barrages, rien n'a été laissé au hasard. Ousmane Sonko est poursuivi par le ministre sénégalais du Tourisme pour diffamation, injures et faux. Mambay Nyang reproche à l'opposant d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État pour sa gestion d'un fonds d'un programme agricole pour l'emploi des jeunes.

simpilan pernikahan Oh yeah Oh yeah, oh yeah. Allah pun pun pun berita. I'm feeling good, I'm feeling better. li xew keroog ñëpp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn loi ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal bu ma sooboon sax ma ne dew ma tribunal du tee procès ba am juge bi àtte nu mu ko nu ko neexee li ñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mën a justifier ci dossier boo xam ne correctionnel la nga ne force rek dinaa wañ loxo nit yóbbu ko tribinal ba tax nga toj otoom ba tax nga gaañ ko waaye li gën a garaaw nga jël produit boo xam ne ñëpp xam nañ ni produit bu toxique la mooy produit boo xam ne lu mën a gaañ nit la lu mun a def jombe yu bari la ci wér-gu-yaramu nit jàkkaarlook moom pomp ko ko ci kanam ci bët nokkiloo ko ko te produit boobu mën a am lu bëri lu mu yàq ci wér yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni loolu la ci benn produit boo xam ne Euh, agent anti-émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bari lu mun a def ci sant ci li war jëm ci mbirum bët ci dem li ci mbirum noqi ak poumon ci dem ci li ci li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci not noqi bi waaye bi ñu eggee kër ga ci ngoon leneen ak leneen yokk na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xool ñu waaye Sénégal yëpp gis nañ ni bi ambulance jógee fii di dem dañoo lànk ne ambulance bi du yegg ci sama kër il a fallu samay avocat seen bopp ñëw dugg ci biir avocat euh, ambulance bi ànd ak ambulance pour ambulance mu a ci sama kër moo tax ma ne tentative d'assassinat la mooy pexe la pour faat suñu bakkan te du pexe bu jiitu te gëmm yi dina doon pexe bu mujj. man Sonko li ko dal ñi ko ko defee instant bi mu nekkee ci biir oto bi takk der yi doon xëccoog Guy Marius Sagna ngir génnoo ko par force teewlu leen baax partie vidéo bii. va au tribunal. lañu piis pompé ñoom Ousmane Sonko benn substance produit bu kenn xamul lu mu doon teewlu waat leen l'action au tribunal donc fii la lépp xewee ñan ñoo def lii policier gendarme ak nervi yi waroon oto bi Ousmane Sonko ne woon pour génne ko. Guy Marius mooy wax moom mi téye woon Ousmane Sonko ci biir oto bi ngir bañ gaa yi daal ko yóbbu. nee na bi gendarme yi pompé poson gu bon googu seen biir oto toog na une heure benn waxtu boo xam ne mënul woon xippi bëtam yi bu baax rax ci dolli yeneen juróom-ñeenti waxtu yi ci toog topp yépp bëtam yi dafa meloon ni luñ doon làq. La journée avait commencé sous haute surveillance policière avec des magasins fermés et même quelques grenades lacrymogènes tirées autour du domicile d'Ousmane Sonko. Ça se passe comme ça à Dakar quand la justice convoque l'opposant du mouvement PASTEF. Finalement, ce jeudi, après trois renvois, le tribunal a rendu son jugement dans la plainte pour diffamation intentée par le ministre sénégalais du Tourisme, Mamba Nyang. Ousmane Sonko est condamné à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA d'amende. ñaari weer yi yëpp nga xam ni umpul kenn li fi xew muy suñu diggante entre ñun. ak Ousmane Sonko bu Pastef fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi moo tax ma ni jeexagul loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko vingt-neuf milliards lañ laaj démb dañuy laaj ñu yokk ko. li bëri ci samay avocat am nañu ay procédure ci baro bi. kenn warul am sañ-sañu défendre Ousmane Sonko dans ce pays gis ngeen nit ñi nga xam ne sax dañ may faj natt bu bu leen teg docteur yeeg sage-femme yeeg nangam nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise sañ ma wax. nga xam ne deful dara du ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd noo sant ñaata at nga am est-ce que am nga ay antécédent diabète nangam nangam mu bind foofu la yem tey ñu takkal ko bracelet électronique du kenn mës la gis. def condamnation naan 200 millions depuis quand la ñu mës a gis diffamation ñuy daan nit 200 millions fii Sénégal fan lañ ko mës a gisee ñoom ñu naan ay. juge bu Pastef laa nangam nangam man de xaw ma ko mosuma koo gis njort naa nag ni juge bu sérieux la peut-être dossier bi ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d'accord nañ ci jugement bi de gis nga man du ma ramener les choses à une question de éligibilité na nekk candidat ñu bëri bi ñu leen ne lii dañ ne alhamdulilah tant que nekk na candidat rek ñi naan man mun naa fay deux cent millions déedéet fukki dërëm duma ko fay waaj bu yóbboo mu toog foofu di

retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à six mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux infractions et a confirmé les 200 millions euh, de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mambayan. Ousmane Sonko, qui était aux abonnés absents lors du procès, avait prévenu qu'il ne collaborerait plus avec la justice si l'État ne garantissait pas sa sécurité. dafa am loo xam ne ñoom ñu ngi koy wër di ko wax ñu nga ci plateau télé yi di ko wax ñu nga ci réseaux sociaux yi di ko wax ñu ngay wër ci ambassadeurs yi di ko wax ñu ngay seeti kilifa diine yi di ko wax mooy lan mooy Ousmane Sonko respecté wul état bi respecté wul justice bi buñ ko woowee du wuyu si may wax ni loolu méngoowul ak dëgg li ko firndeel mooy musuñu maa woote wuyu ji mu yi damay bëgg suñuy wax ñu wax ci loo xam ne lu nit mun a teg loxo benn yoon lañ ma musa woo ma ne leen ñëwuma te mooy woote bu njëkk ba le 7 février 2021 yàgg na ñaari at ak lu tegu ci gannaaw te li taxoon may leen ñëwuma mooy yoon dafa man yi nekk kenn mu ma woo te teg ma xëy rek ñu ne ma woo nañ la gendarmerie da ngay ñëw may leen déet lii la ma constitution may lii la mooy yoon may munu leen ko jalgati waaye boo génnee boobu yeneen yëpp bañ ma woy dama wuyu si bi ñu demee ba teggi sama malaanu kiiraay te teguñu ko ci yoon fiñ ko jaarale jaaru ah, euh, jaaduwut dama nangu le 3 mars 2021 man leen maa ngi leen di wuyu si juge d'instruction bi mu ubbiwaatee dossier bi woo na ma fi lem ma woo yëpp dama wuyu si woo na ma bu njëkk ne ma kaay ma laaj la ma dem ma laaj mu toogaat mu def ko ne ma kaay damay woote ndax dama leen di defal confrontation mooy ngeen toog ku nekk layo ma dem nangu ko ñu toog tuuti police woo ma wala dikk ne ma am na ku fi déposé plainte ñëwul wuyu ma dem wuyu ji ko ñu toogaat ñu convoqué ma le 16 février ma jóge sama kër di dem tribunal ñu song sama convoi dóor sama nit ay lacrymogène ñi ñu jàpp leen dem tëji leen ma dem tribunal ñu ne renvoyé nañ affaire ba le 16 mars may dellusi di ñibbisi si yéen ñëpp yéen a teg seen bët ñu bloqué sama oto ci ci ci Soumbédioune daal di toj sama vitre oto mënoon nañ ma gaañ mënoon nañ ma rey gaañ nañ ma sax waaye mënoon nañ ma rey sax toj sama vitre lu kenn mësul gis ci koo xam ne mi ngi ñibbi këram daan may génne ci oto bi par la force ne dañ may dugal ñoom ci seen oto blindé ñoo xam lu ñu defoon ci oto bi ba bëgg ma dugg ci. ne ci noonu lañ ma yóbboo ma ñibbi sama kër loolu àdduna bi yëpp gisandoo ko mu yéem ñëpp ñu tegaat ci ñu ne 16 mars 16 mars ma génn sama kër bu 2023 bi di dem ñu attaqué sama convoi dóor ay gaz lacrymogène jàpp ñu bëree bëri bëri ci ñun ba ci ñoom Waly Bodiang yëpp ci lañ leen jàppoon daa di toj sama vitre oto ma génn ci oto boobu dugg ci beneen oto ñu ñëwaat toj vitre oto boobu. mais li gën a garaaw ñu jël ab mbir sotti ma ko loo xam ne biñ ko yónnee bañ bañ ko analyser ko bi mu dellusee dañu ne loolu mënoon na ma rey ci saasa su ma génnoon ci oto bi yi yëpp dañ ko fii kon ku leen ne Ousmane Sonko dafa bañ uyu ji justice da leen wax lu ko neex musuñu maa woote dew ma uyu ji le 30 ñu woowaat ma ma tëdd l'hôpital sama yaram neexul ma yëkkati samay di médicaux jox ko samay avocat nga xam ne loolu fu mu mus a amee juge da koy jël juge bi neen moo lànk du laal sama certificat médical ba pare ne samay avocat amu leen droit layal ko daal di def ay condamnation yoo xam ne d'accord ma ci ànduma ci tey waaw kon est-ce que Ousmane Sonko dafa bañ a wuyu justice am déet est-ce que Ousmane Sonko mës nañ ko convoqué te demul moo tax ma ne la ma waxoon campagne de désobéissance civique moom laay continuer ndax boo demee ba dem tribunal sax ñu convoqué la ki la moom muy état moom ci boppam mooy moo lay tere dem tribunal moo tax nag ma ne man sama jëflanteeg tribunal pare na jeex na dama leen ko waxoon ci mitingu Kër Massar bi ne leen dama dama toll ci sama terminus ndax bi ma commencé jëflanteeg justice ba léegi lorange sur lorange te ay magistrat ñoo ma koy teg man ne loolu mënatuma ko Ces jeunes Sénégalais se relaient devant la résidence d'Ousmane Sanko à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, depuis des jours. Ils veillent sur l'opposant attendu à Dakar où doit se tenir ce mardi un nouveau round de son procès pour des accusations de viol. Ses partisans ont donc érigé des barricades sur les rues situées près de son domicile pour, disent-ils, ah, en assurer la garde. Ce sont des sympathisants qui croient à Ousmane Sonko et à son projet et qui sont prêts à le défendre, qui qui donnent, leur, qui mettent à contribution leur sueur, leur liberté et leur vie. Pourquoi Pour protéger Ousmane Sonko, parce qu'ils pensent que c'est leur dernier espoir. Un espoir que ces jeunes disent vouloir protéger même en faisant don de leur corps, le juge pouvant prendre une ordonnance de prise de corps. ñaari fan ci ginnaaw euh, amoon na ay euh, information wala boo sax ay rumeur yu ni euh, ñu ngi def renfort vers ñëw vers yow fii pour exfiltrer la yóbbu la de force nga mën a comparaître est-ce que rumeur yooyu déggoon nga ko ak ba nga ko déggee aussi est-ce que da nga gënoon dëggalal sa taxawaay. waaw am na ñu ne woon sax maa Guinée <laughs> xam nga fii sama kër nga ma fekk mosuma génn ci kër gi maa ngi fii toog jàpp sama ñàmbur di def samay activité di génn di seeti samay mbokk. tey ji dama waroon xëy dem mairie liggéey waaye ci biir waxtaan la ñu ne nañu xaaraat xaarandi tuuti xam nga Pierre man yooyu géré wu ko sax waaye dafa am wax ji ma waxoon en février 2021 dama ne woon président Macky Sall yàgg naa def lu mel ni mu ko def na ko ay homme politique mu jikko waaye nag mu ngi doog a egsi ci dossier am néew mu mënaluma dara de bu dee li mu bëgg la bëgg il faut qu'il accepte de se salir les mains yaa ngi fàttaliku moo koy wax février 2021 la woon du ci bouger mètre gis nga état su bëggee jàpp ni dëgg dëgg dëgg dëgg gëm naa ni dina jafe mu am lu ko ko teree jàpp boo xasee ba jàpp ko lan la mën a jur ci réew mi ak ndax nga koy gérer waaye jàpp googu laa ne duma ko yombalal Macky Sall parce que tegul ci yoon te j'ai suffisamment suivi de justice Sénégal nag am na ñoo xam ne defe naa dañu dem ba jàpp ni bu dee Ousmane sonk luñ ko teg rek dagan na am na soo xam ne ñoo xam ne dañoo jàpp ni man benn robot laa quoi. yéeg dara du ma trick sama njaboot du ñu yéeg dara samay mbokk du ñu yéeg dara boobu jamono bi may wax ni egg naa terminus ci yi ñuy def nii fàtt fàttali ko ay weer ci gannaaw la woon fii ñu toll nii.

le Saloum wala pour le Sine wala pour le Poundou wala pour le Baol wala nangam nangam. on porte un projet pour le Sénégal et au-delà même l'Afrique. d'accord ngeen ko. est-ce que xam ni. li naan jokki fin. le combat final ça se passera où. parce que ma décision je vais passer par la route dem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 ma génneel itinéraire bi day dëkk yu bëri ci Casamance dañ fa jaar jéegaat Koumpentoum ba Koungheul Kaffrine génnee ba egg Dakar Mbour ak feneen ak feneen ma tuddee ko nag la caravane la parade. Président Ousmane Sonko aujourd'hui dans les rues de Ziguinchor. Pour remercier pour ces personnes qui ont veillé sur lui pendant ces, ces jours. difficile et ils ont résisté. C'était dur mais ils ont tenu. Ziguinchor Ziguinchor waas Ousmane Sonko um vous remercie convoi est pris en waaw ñu ngi noonu waa Garci ñu ngi positionné wu waaw ñoom ñëpp a ngi noonu ci image yi ngeen di gis nii en direct tout ce dispositif sécuritaire waxuma la lacrymogène yi ñuy dóor waaye situation baa ngi on a vraiment pas les mots on a vraiment pas les mots le convoi est pris en tenaille gazé depuis cinq à six villages fu ñu nit ñi taxaw acclamer Ousmane Sonko Ousmane Sonko lacrymogène yi dal certainement vous avez vu les images mi ngi noonu ci kanam aussi dooraat nañ fa lacrymogène mi ngi noonu donc on continue d'être pris en tenaille waaw y a quelque chose qui se prépare lii c'est pas un maintien de l'ordre peut-être c'est mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa. réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam bi yoon ngeen di wax ñëw baax na si ñoom bay jib si boor Koungheul lañu jékki-jékki am alkaati benn alkaati jëkk nañoo arrêté laaj ñu kayit ñu woon ko mu ñu dem man xamoon naa ni wax na ñeneen ñi ngay ñëw waaye comme man làqatuwuma soo bëggoon làqatu neen lay doxale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 amul kenn kuy dund Sénégal koo xam mun na jóg ne maa ngi dem seeti Ousmane Sonko te justice diglewu ko loolu justice rek moo ko digle loolu su dul dictature lu mu doon moo tax lenn na fi des mooy résistance encore résistance toujours résistance. voilà la situation chez moi travail, tout ça, char de combat, etc. Tout ça, c'est pour moi. Je ne suis pas condamné. Il pas de décision judiciaire. Mais je suis un citoyen libre dont on empêche de circuler et de vaquer ses occupations. Donc tout ce que vous voyez là, et c'est toutes les issues yoon boo jël fi mu ne nii nii la juge terewuma amul lenn lu ko tere mais ne nañ génn sama kër loolu mooy Sénégal u Macky Sall et voilà ce que nous vivons famille. Président désormais, vous êtes très courageux. Ça, c'est pas le renfort tiré sur les véhicules civils désarmés. C'est ça la police de Macky Sall et du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur vous. Vous ne pouvez même pas évaluer le risque aux gens. Moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire Quel risque y a-t-il de charger euh, un fusil à pompe pour tirer sur moi c'est ici que ça se joue. Ça se joue ici dans la tête. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Macky Sall jarul li li mu la ni def moom bu leen ko nangu. soo tiré woon nit dee après lan nga ci gagné. absolument donc utilisez vos cerveaux. Claro. Ini benar-benar boleh jadi beri. Ini benar-benar. Balik beri. Balik beri. Gimana dengan ini? Yang familiar. Yang familiar. Kita jangan jangan jawab. Sëñ Abdou c'est relationnel donc la hiérarchie en plus de d'entraver ah, ah. la liberté d'aller de venir des citoyens entrave maintenant la liberté du culte non donc c'est pas légal c'est de base la Constitution dit que j'ai le droit d'écrire la Constitution dit que j'ai le droit de l'écrire donc un ordre ne peut pas violer la Constitution Le commandement ne tire sa nécessité que de la loi. Il n'y a pas de. En loi administrative, on manifestement illégal. Ce pas tout ordre qui est Donc, quand on ordre est illégal, vous, en tant que policier, vous avez le de l'exécuter. Ce pas tout ordre de manière manifestement, flagramment, c'est Mais je ne vous en veux pas faire votre normal. Et c'est à cela que notre République est réduite. Les victimes nous occupent. N'est-ce pas? ah jërëjëf ñu ngi leen di gërëm ak waa wax ni Sénégal yëpp fii dal moo jaaxal liggéey nañu yëpp ñu ne waa Côte Sow Casamance Sow mais di wax Sénégal yëpp su dee ñu xam ne kenn ku ci war a dem en tant que jullit waaye nee nañu amuñu sañ-sañu dem jullit ci loolu loolu li ñu mooy dëkk bi tey. liberté dem ak ñëw nga xam ne constitution bi moom xaj na ci bopp waaye liberté bi nga xam ne may nañ ko képp Sénégal ci gëm-gëmam ngay chrétien ngay jullit wala ngay sax euh, euh, religion am nga droit euh, ci sa sa diine même liberté boobu xaj ak sëñ bi nee dañoo jot tey wax ma ne ko nag réew day dox ci droit. quel est le problème Pourquoi on parle les, les, les axes pour entrer chez moi bah, Vous pouvez venir. J'ai mon mon fils à l'école. Attendez. Attendez. J'ai mon fils a cours à 10 heures au lycée. avancé defal gi saa pour répondre directement à la question du de ce que vous avez appelé le blocage mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane qu'il va faire des rassemblements sans déclaration on constate des décès est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal faire des rassemblements et compter les morts derrière on ne peut pas à partir de ce moment Et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. C'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique. C'est pas statique. En cas de, si on se rend compte que la situation, fois, si la situation permet, ou en tout cas, euh, arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont duré jusque dans la soirée de jeudi, comme ici, dans le quartier de Wakam à Dakar. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu dans la capitale et à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est maire. Des manifestations se sont aussi déroulées à Saint-Louis, au nord, et dans d'autres villes du pays. L'adversaire le plus farouche du président Macky et candidat à la présidentielle a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une peine qui pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine élection. des assassins d'ailleurs. Ils ont des assassins. bu koy mel nii xoolal lii. xoolal xoolal lii. et ça ce sont nous sommes non. lii moo tax booy yi li moo ta booy yi mënuñu mënuñu sànni xeer parce que duñ sànni seen moroomu ndey sénégalais Macky Sall il assassine les sénégalais avec son armée de merde il doit être conduit à la CPI. jàpp nañ ñaari auto police yi gis nga jàpp nañ ñaari auto police policiers yi daw nañ jël nañ ñaari auto police yi ñu ngi koy ces images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue mais aussi à leur côté et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. Deux ans plus tard, le discours officiel a changé. ndax ñi nga xamante ni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg maanaam dinañ tiire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko. Alors qui sont ces civils armés Pour qui travaillent-ils Des images analysées par le monde et des conversations audio exclusives lève le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme au t-shirt rouge est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur trois autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armés. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le mars Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main en civil et armés sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officielles semblent laisser intervenir. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall. Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre.

On est ensuite allé au siège de l'APR. Là-bas, c'était plus sûr comme base. Deux ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, Ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lance-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées et qui sont réservées aux forces de l'ordre, tout du moins officiellement.

bu ñu toogoon seen poo ndey yi bañ marche kenn du leen boom bii yoon lu ngeen di wax booy yi ñoo doon taal réew mi kon boog ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xaj lañu yu dee c'est bien fait pour bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër te ba tey mënu leen gis benn nervi bii yoon lu ngeen di wax si bii chasse à lom on assiste à des exécutions publiques où sont les de l'homme bi yoon publiquement la ñu leen di faat ñëpp en plein jour c'est un message de terreur ils sont en train de nous dire le prochain parmi vous qui ose manifester ce sera à son tour L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté à Dakar vendredi, ont indiqué des membres de son parti. La raison de son interpellation n'a pas été communiquée, mais selon le porte-parole du PASTEF, la figure de l'opposition sénégalaise aurait été arrêtée devant son domicile par la gendarmerie nationale. Ousmane Sanko est donc finalement poursuivi pour appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à compromettre la sécurité, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol. Selon le procureur, il devrait être rapidement déféré. Le PASTEF a essayé de tenir un point de presse cet après-midi, mais la gendarmerie a bloqué les accès au siège du parti. Sont au total sept chefs d'inculpation qui pèsent contre Ousmane Sonko au Sénégal. De lourdes charges qui n'ont rien à voir avec sa condamnation par contumace le 1er juin dernier. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République lors d'une conférence de presse à la mi-journée. insurrection qui sont reprochées au leader de PASTEF, selon les mots du procureur. Abdul Karim Diop euh, qui a présenté une vidéo compilant euh, des extraits de déclarations d'Ousmane Sonko depuis mars L'altercation entre l'opposant et la gendarme qui a eu lieu ce vendredi, et notamment euh, le vol de téléphone portable dont il est accusé, ne serait donc qu'un élément déclencheur de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Écoutez plutôt le procureur de la République. Parce que ñu koy ooy Ousmane Sonko mu nekk politicien bu mag mais nekk également citoyen moom la yoon teg loxo. bala ñoo def euh, waxtaan wi waxtaan nañ ci ak yi nga xam ne ñooy suñu ay kilifa ñu gis ne dañu war a génn wax ak sénégalais yi parce que koo xam ne dafa am cër ci réew mi suñ ko yoon tegee loxo kon jaaru na ñu génn wax ak ak askan wi. dégg naa sax ni koy waxee ci réseaux sociaux yi ñu ne dañ koy topp ndax dafa sàcc téléphone. non euh, nekkul sàcc téléphone bi kese lañ koy toppee mais li gën a tax ñu koy topp mooy ces appels à l'insurrection boo xam ne comme ni ngeen ko déggee sànq ci vidéo bi ñu teg moom moo ko wax moom moo oo sénégalais yi. continuer di leen oo depuis mars 2021 ba biñ koy jàpp liñ jàppee Ousmane Sonko liñ ko jàppee nii jotewul dara dara absolument rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace loolu dama bëgg mu leer également ci bopp nit ñi nit ñi ñu ngi ci débat di ci wax il a été arrêté pour autre cause Ces quelques lignes pourraient sceller le destin politique de leur leader pour les prochaines années. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko n'a plus de parti. Le PASTEF est dissous par décret par le ministre de l'Intérieur pour ses manquements qualifiés de permanents aux obligations des partis. Dans son communiqué, le gouvernement évoque des appels à des mouvements insurrectionnels ayant eu de lourdes conséquences avec des pertes en vie humaine. Pour ce militant qui souhaite rester anonyme, la lutte ne D'ailleurs, cette condamnation, c'est l'empêcher d'aller aux élections présidentielles. On va, on va, se mettre sur le terrain jusqu'à avoir notre appui. Mais quitte à ce qu'on nous incarcère tous, quitte à ce qu'on nous mette tous en prison, mais on va se battre pour ce qu'on se croit légitime. Mais difficile ce lundi de se rassembler. Quelques heures ont éclaté. Pour éviter les attroupements, Internet a été suspendu sur les téléphones mobiles. Un peu plus tôt

président Ousmane Sonko kenn ta wax ba du nekk président Sénégal gii kooku yaayam da koo aver avorté. Ah, baraasale yi benn baraasale. ah moo ma gënal 1 million. benn baraasale ma gënal 1 million. ma ah, xamal la loolu xew. pour nga nekk éligible da ngay nekk électeur ku nekkul électeur doo nekk éligible donc ñu defee liste électorale yi ñu génn la xam nga nekkatoo kon nekkatoo éligible. lu tax ñu lay jox parrainage. mais condamnation par contumace foofu définitive amu fa. Mm-hmm. code électoral L29 moo ne. les listes électorales ceux qui de contumace. tout à fait. la radiation de l'opposant Ousmane Sonko de liste électorale du Sénégal la présidentielle de février La Direction générale des élections avait récemment refusé de délivrer aux mandataires d'Ousmane Sonko les formulaires devant servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature. Selon ses avocats, cette décision du tribunal de Ziguinchor devrait avoir un effet immédiat et leur permettre de récupérer ces formulaires. Dans la foulée, l'agent judiciaire de l'État, dans un communiqué publié par les sites d'information, a cependant dit que l'État allait introduire un recours contre la décision du juge et qu'Ousmane Sonko ne pouvait toujours pas être candidat. le juge de la Cour suprême a rejeté la décision de Sabassi Faye qui a été prise le 12 octobre. s'il vous plaît tënku ko si wolof s'il vous plaît ñu lay seetaan euh, nañ si Cour suprême le juge Ali Ba euh, génn na décision ñu rejeté loo xamante ni moom moo di la décision de la cour du tribunal d'instance de Ziguinchor bu xamante ni dafa ordonné. la réintégration de Ousmane Sonko ci fichier électoral bi waaye nag Ali Siré Ba ak ñu mu àndal nee nañ nañu loolu dañ koo anule ba affaire bi ñu yóbbu ko si tribunal d' instance de Dakar pour que ñu mun ko jugé waat foofu noonu. dañ koy attewaat si tribunal d' instance de Dakar pour le moment destination bi yëpp tribunal de Dakar. Une lueur d'espoir pour l'opposant Ousmane Sonko. Il peut désormais être réinscrit sur les listes électorales.

Jusqu'au bout, le chef du PASTEF veut rester dans la course à la présidentielle. Mais il doit faire face à une succession d'affaires judiciaires Dernière en date, sa condamnation définitive ce jeudi par la Cour suprême à 6 mois de prison avec sursis et 350 euros d'amende pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme. de cette élection, c'est Ousmane Sonko, vous l'avez dit cette fois sans surprise. Alors lui, son dossier avait été écarté euh, pour euh, juger incomplet par le Conseil euh, dès le départ en fait de l'examen des dossiers de candidature. Il avait fait un recours qui a donc été rejeté. Alors là, le justifie sa décision par la condamnation définitive début janvier d'Ousmane Sonko pour diffamation à six mois de prison avec sursis, euh, ce qui le prive de son éligibilité pour les cinq prochaines années. Pour... ma ne ñeenti vidéo yi nga xam ne defar naa ko mën na doon kenn ku ne ci ñoom waaye ci biir vidéo ma biral leen ni Bassirou Diomaye Faye laa tànn daan wax ni choix ma def ci Bassirou Diomaye du choix wu choix de cœur choix de raison la mooy tànn ma ko ci cofeel wala ci mbëggeel wala ci parparlo waaye dama ko tànn ci xel ci xeltu ma xeltoo ba dajale gis ni profil bi ku ko jiital ma ànd ci puus ñeneen ñëpp ñëw jàpp histoire bi na yomb loolu naam Bassirou Diomaye sama rakk la ñëpp xam ko. sooy xeex ngir dëgg boo demee ba gën a jege objectif bi foofu la mbir mi di niroog lu gën a métti fekk boo xuusaatee tuuti rek yegg yàlla mooy doxalee mbiram noonu waaye boo découragé bàyyi sa loxo rek fekk yow presque yeggoon nga lépp lu ngeen doon def benn nañ ko def juróom tey. il est le phénomène ñu ngi wéy di Sonko naan Sonko namm la Abdou bu fekkee yaa ngi may dégg lii c'est extraordinaire en tout cas euh, les parts de l'Oise les parts de l'Oise ñu ngi en tout cas lancé benn message Ousmane Sonko naan ko Sonko namm la la nostalgie mu nekk loo xamante ni c'est émouvant aussi c'est très émouvant ñu ngi wéy di saluer en tout cas euh, nga xam te def naan Sonko namm la. ci moment bi nga xamante ni ku ne xam na ne on est dans un contexte politique très particulier à travers euh, ay condamnation yu dul waaye aussi tamit déjà moom mi nga xam te ne moom la ñu wéy il est en prison depuis lors. Sonko Sonko libérez les otages Sonko libérez leen Ousmane Sonko. président woowee di nga ko uyu ci ma ne ko ah mooy suñu kilifa mu ne après tout ce qui s'est passé je dis pour moi il s'est rien passé j'ai oublié mm. mais c'est le chef de l'État s'il a besoin de moi je réponds présent la personne m'a amené chez le président je n'avais d'ailleurs jamais été chez lui son domicile et il m'a dit bon écoute Pierre voilà le pays est dans une situation où nous avons besoin de se parler nous tous. D'accord. Est-ce que tu accepterais de de facilité avec certains de tes amis pour qu'éventuellement nous puissions tous nous retrouver autour d'une table. Voilà comment ça s'est passé. Je Donc c'est le président qui a eu à faire. Mon mot demandait en fait à ce que. Peut-être qu'il n'a pas demandé. C'est un ami qui est venu me voir pour me poser la question. Est-ce que c'est le président qui lui a demandé Est-ce que le président l'a pas demandé Je ne, je n'en sais rien. Je sais simplement que quand j'ai dit oui, quelques heures après, j'étais devant le président. Donc ça c'est pas important. Il n'y a aucun deal Il y a simplement qu'il faut trouver des solutions à un problème qui est extrêmement compliqué. Mais on ne peut pas régler un problème si on ne se parle pas. La personne que j'ai vue quatre fois en dix jours m'a semblé très sincère. waxuma si turu sama parti damay wax en tant que président de la république man laa wax tant que njiitu réew loolu laa sàkku ci askan bi ak ci député yi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 Ils ont attendu Sonko devant son domicile pour fêter sa libération après huit mois d'incarcération. À moins de dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, ses opposants de taille rejoignent la campagne électorale qui a démarré samedi. Nous sommes très satisfaits de votre engagement. Je tiens à ajouter que durant tout le temps que j'ai passé en prison, je n'ai pas vu ni ressenti de lassitude de votre part dans la poursuite de ce combat. Ousmane Sonko et son numéro 2 Bassirou Diomaye Faye doivent leur liberté à la loi d'amnistie votée une semaine plus tôt par l'Assemblée nationale, qui vise tous les délits ou crimes ayant des motivations politiques. Ces libérations marquent l'épilogue d'une saga politico-judiciaire qui dure depuis maintenant trois ans entre Ousmane Sonko et le président Macky Le choc de ces titans sur la scène politique sénégalaise a provoqué de graves émeutes conduisant à une Pour leur première apparition publique depuis leur libération, les deux opposants ont choisi le format de la conférence de presse conjointe. Et à huit jours de la présidentielle, le leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko et son numéro 2 Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, ont affiché leur optimisme. Leur double libération jeudi est intervenue après l'adoption le 6 mars dernier d'une loi d'amnistie un texte voulu par le président Macky Sall pour sortir de la crise politique provoquée par l'annonce initiale du report de l'élection présidentielle, décision finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko était emprisonné depuis juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État, une manière, affirment ses soutiens, de lui barrer la route à l'élection présidentielle. Empêchés de se présenter, Ousmane Sonko et son parti, l'ex-PASTEF, ont appuyé la candidature du numéro de la formation, Bassirou Diomaye Désormais libre de concourir, il se présente comme l'un des favoris du scrutin face au parti du président Macky Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie et ni Sonko mooy Diomaye du waxantu. du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu. bu ñu paree di seetaan vidéo yi li ëpp ci commentaire yi mooy yàlla bu yaakaar tas sénégalais yi mënatuñu supporter yaakaar gu tas ku dem campagne ay milliers de jeunes topp sa gannaaw di daw pendant des kilomètres et des kilomètres boo tëddee waroo nelaw waroo fëgg sa di bàkku de responsabilité la boo xam ne nous n'avons plus le droit de décevoir ce peuple a trop souffert et ce départ doit être le départ le bon départ et moo tax ku yaakaar ne bu ñu gañee ba pare ay séddoo la ay maa fi nekkoon ay sama wàll ndax sa bopp de je vous jure du fi amee de réew mi dinañ ko tabax kilan tolli fareta oh C'est un moment historique au Sénégal au lendemain de l'élection présidentielle. Alors que les résultats officiels ne seront publiés que vendredi, le candidat anti Bassirou Diomaye est d'ores déjà en tête. de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye au nom du peuple sénégalais le conseil constitutionnel va recevoir votre serment devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal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 transmettre Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant à, aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. ci cadre boobu nag dañu président Bassirou Diomaye Faye woolu ñëw wuyu si ko waxtaan ak ñun.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 bañ naa nangu kenn jaay nu réew mi bañ na réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu kenn noor réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam yoon lu ngeen di wax ñaw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen pooju nday yi bañ marche kenn du leen boom bii yoon lu ngeen di wax booy yi ñoo doon taal réew mi kon boo ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xaj lañu yu dee c'est bien fait pour eux bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër te ba tey mënu leen gis benn bi bii yoon lu ngeen di wax si bii chasse à l'homme On assiste à des exécutions publiques. Où sont les droits de l'homme bi publiquement la ñu leen di faat ci kanamu ñëpp en plein jour. C'est un message de terreur. Ils sont en train de nous dire, le prochain parmi vous qui ose manifester, ce sera à son tour. Hé, hey, ils veulent qu'on voie tout. Ça, c'est une mise en scène macabre et sanguinaire. Ils veulent qu'on voit tout, le sang de nos frères, pour qu'on arrête de réclamer justice et surtout qu'on arrête nos réew mi justice lañ fi bëgg réew mi jàmm lañ fi bëgg te justice mooy andi jàmm réew mi tolloole nit ñi lañ fi bëgg réew mi bañ bàyyi di jël li nga xam ne dénk nañ la ko ci doole nguur. ko dalee ci kaw nit ñi loolu dañoo bëgg mu jóge fi. yow sama ndaw réew dama la tàllal sama loxo ne la damaa bëgg ñu jaayante ci defar réew mi. pas jaayante ci sànnil naa ko carte rek waaye ñu jaayante ci defar réew mi définitivement. man yàlla laa gëm man yàlla laa gëm. yàlla laa gëm. yàlla dama koo gëm wóolu ko wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag moom kese nag. ma jël sama lépp teg ko ci loxo lépp teg ko ci loxo lu ñëw rek mooma lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu naqaree moom la.